sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel eh, di am mbégte mbokk yi seq ak yéen waxtaan wu am solo wala dikkaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moom lañu ñu baaxoo ànd ak yéen àllarba ju ne 22 heures 30 ba minuit ngeen di ci ànd ak Abdourahmane Lo muy émission xamle ni nga xam ne nag démb waxoon nañu ko ndax amoon na nañu yéene démb ci xët wu yaatu ndax xam ngeen ne démb la woon ñetti fan ci weeru baraxlu ñetti fan ci weeru baraxlu nag bu ñu ko waxee xel yépp dafay dem ci a Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ibnu Xaadimu Rasul démb nag jullit yi ak murit yëpp maase ci bis bu am solo boobu ànd ci ak njabootuk cheikh Mouhamadul Moustapha màggal ci màggalu ñetti fani baraxlu jagleel ko cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim di ci sunuy nuyoo ak sunuy ziar ak cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakkeem Serigne Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lépp loo xam ne yéene na koo liggéeyal Serigne Touba rek mu yeggale ko am ci ndam te ñu ànd ko ak moom di ko ñaanal njabootuk sëriñ Touba gépp taalibe murit yëpp di ko ñaanal itam jullit ñëpp Bachir Amar nekk ci kàddu gi waaye war a seq waxtaan wi ak borom émission xamle Abdourahmane Lo bu ko defee nag ñu waxtaane mbokk yi Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mi nga xam ne warees nañ koy waxtaane euh, ci jamono yëpp waaye nag bu lu mel ne ñetti fani baraxlu amee àddina sépp naan Cheikh Moustapha al Karim dina jaadu ngir ñu toog waxtaane jëmm jooju ak liggéeyam ak njàmbaaram ni mu taxawoo yoon wi ginnaaw ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waaye itam lan lañu ñu mën a roy ci jëmm jooju bu ko defee itam jàpp nañu ne am na ci lenn rek loo xam ne buñ ko jëlee man nañoo jëriñ tey jii ak ëllëg kon damay bàyyi rek Abdourahmane loo mu nuyoo ak auditeurs yi bu ko defee ñu soog a ñëw ak moom ci waxtaan wi sëñ Abdourahmane ñu ngi lay nuyu di la ziar. di am mbégte kon di seq ak yow jotaay bii di émission xam xamle tey ñu war a waxtaane Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim jërëjëf euh, Bachir Amar ñu ngi lay fay nuyoo di la ziyaare yow itam lu bare bari di la ñaanal tey sàkku ci yow ak ñaan di ziyaare bu baax a baax ñi nga xam ne dañoo saxoo di teew lu seen émission bi ñu tuddee xamle jaarale ko itam ci rajo bi nga xam ne moom lañ ñu faral di ko amale muy wal Walfajri comme ni nga ko waxee ci ay fréquence am jurut ñu ciy del si wax nga ko ñaar yëpp muy Touba ak euh, Njaareem ñu ngi lay sant bu baax tim te di la gërëm di wax ne itim euh, démb euh, nga nga waxoon ne nañ ko def far mu amoon ay xat-xat ba taxoon mujj ñu ko war a def waaye démb ci ñetti fan yi baraxlu yi lañ ko bëggoon a def xanaa di sàkku rek mm, tim yàlla nañu suñ borom jàppale mm, te may ñu taw itim ba li ñuy wax nit ñi mën koo dégg te itam ñu xam ne jubluwuñ ci dara rek waaye ngir feeñal liggéeyub Cheikh Modou Moustapha rek lañ ci jublu ngir gën a xamal nit ñi moom mooy kan ci ab tolluwaayam ak yooyu ñëwuñu fi nag ngir di waaraate ak itam di di conférence ak yooyu hmm. waaye wax rek jëmm jooju moom mooy kan ci ak ni mu doxale rek moom moo ñu yëkkati te loolu moom moo ñu ñor ñu ngi ziare ba ab xalifaam sëriñ Ahmadou Mokhtar ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom la am tañ des fii te ay jigéen mm-hmm. ak sët yi nga xam ne ñoom ñoo toog ci buntu kër yi ak sëtaat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tim ak taalibe yeeg yi ñoom ñëpp tim mm-hmm. ngi leen di sant ak turandoo yeeg yëpp kon ñu delloo la kàddu gi mm-hmm. jërëjëf Abdou Rahman Lo ni ngi ko waxee kon noonu la ci sa nuyoo bu am solo xam naa dañuy tàbbi ci waxtaan wi ndax sëñ Modou Moussa moom dama jàpp ne di ko sàkkal ay minute wala ay waxtu yuñ ko war a waxtaanee. Mhm. ëpp na ko euh, dañuy kon jéem suñ kéemtalaay kàttan ci li ñu waxtu yu may rek ñu am lenn luñ ci wax li ci des incha allah xëy na euh, danañ ko mën a yeggale ci yeneeni jamono wala sax yeneen ñi nga xam ne wala borom xam-xam ya incha allah danañ leen gën a déglu ñu gën caa wax. Abdourahmane ni ñu ko baaxoo defee ci waxtaan ngir kilifa gépp gu ñuy waxtaanee ci ak njëlbeen di nga nu présenté kilifa googu. Euh, buñ ko doon présenté mooy kan Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim nan nga nu ko mën a présenté lee ba nga xam jëmm ji mooy kan. waaw doomu Cheikhul Xadim la Cheikhul Xadim doomu maam ba euh, maam maam Mor Anta Sali la. maam mhm. Mor Anta Sali doomu maam Balla la maam Balla doomu maam Maaram la. Mm, dégg naa na sëñ Tuubaa day wax ne sooy lim ay maam ba toll ci maam maaram man ngaa taxaw mm-hmm. ndax jërëtuta jërëtuta mm-hmm. ndax boo ëllëgee itam ak njuumte mën na caa am te itam day nuru bàkku te mm-hmm. loolu daal jëru ko kon booy lim comme ni ko yonente bi sàkkoo rek ci booy lim ay maamam mm, moom itam ba egg ci àddumaan xaw ma mën ngaa mën ngaa taxaw ndax yenn itam jërëtu ko waaye eh, muy doomu soxna Aminata tollo soxna Aminata Lo itam bokk itam ci askanu ndaam moom itam mm, di di koo xam ne itam ndaam itam xam nañ ko bu baax a baax soxna Aminata Lo nag bokk itam ci soxna yi nga xam ne nii Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam dëkkoo woon na leen njëkkul itam ci kër Seexul Xadiim waaye xam naa booy lim ci juróom ña njëkk eh, ci nga koy ci koy boole moom soxna Aminata Lo mu nekkit koo xam ne itam njëkkewul ci ëttub seexul Khadim hmm. ndax demoon na ngembe ci sëriñ Moor Madieng Fallo hmm. mu am fa am nañu wax ñetti doom waaye daal kenn ki mooy ki gën a fés te ñëpp xam ko hmm. muy sëñ Amadou Muxtaar jeg mi nga xam ne moo fa nekk waaye am nañu wax ne am na fa ñaari doom yu jigéen muy kuñ doon wax Joor ak soxna Yaasin Mm-hmm. waaye ñaar ñooñu nag ñu ngi seen wetu waajur sëriñ moor ma Dieng Fallo waaye ñooñu tamit ñu bari mm-hmm. daanaka yoon wi daal ñu baree bari duñ leen tudd ndax daanaka histoire li mu leen di tudd bariwul waaye daal moom sëñ Amadou Mokhtar Dieng daal moo ëpp ci lu luñ ciy tudd ginnaaw bi nag la euh, moor moom mu génn àdduna bi soxna si taxawoo ginnaaw suñ moor ba noppi nag. Mm-hmm. la ko sëriñ Touba dëkkoo am ci Cheikh Moudou Moustapha. ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara mm-hmm. moom itam mu ñëw nekk itam koo xam ne nii ku liggéey ci roon Cheikhul Xadim la moom soxna Aminata Lo mm-hmm. ndax Moustapha Maroon mi njëkk a denc ci armeer yi tuubaa mm-hmm. yi ñaareelu nit ki njëkk a dencaat ci armeer yi Touba yi Mm. soxna Aminata Lo la mm. nga xam jigéen ci góor gi ñu ci njëkk a denc soxna suñ Moustapha Moroon la mm. mais jigéen gi ci njëkk a denc tim soxna Aminata Lo la am na histoire bu bari boo xam ne moo waral ak làqoom ci niñ koy waxee waaye daal kooku moo meññ ki nga xam ne moom mooy Cheikh Moustapha mu feeñ jamono nag ci mille cent six ci atu gàddaay bi comme niñ koy waxee ginnaaw bu yonent bi gàddaayee ba mu am junni at ak ñetti téeméer ak juróom benn comme niñ koy waxee eh, mu dëppoo mille huit cent quatre-vingt-huit mhm. weeru wala fi weeru tam xarit la woon fan yi fukki fan ak benn la woon bis bopp ajjuma la woon mhm. bu doonee tubaab bi itam weeru weeru septembre la woon mhm. fan ya dix la woon jour ba itam vendredi la woon mu feeñee jamono Daaru Salaam wax nañ na boobu sëñ tubaab mi ngi ci diggi Tuubaa yitteel ko ndax boobu boo ne am na ñuy wax ne mi ngi wër pàkk bi di Touba waaye boobu daal mi ngi ci diggi pàkk jëmmi Touba moom yitteel ko ndax wax nañ ne sëñ mm-hmm. sëriñ Massamba Bousso mi ñu yónni woon ngir mu wëri sëñ tuubaa wala mu ànd ak sàmm ba ñu doon wëri sëñ tuubaa ba gis ko ndax moom moo wax moom moo xamal sëñ Touba sëñ Massamba Bousso nag Mm, rakku sëñ Mbàkke Buso la waaye bokkut ak sëñ ma Masamba Kandi beneen sëñ ma Masamba Buso bi la mm. moom moo xamal sëñ tubaa ni ko daal soxna Aminata Lo am na gan mu laaj ko lu doon mu ne ko góor la wax nañ ne nag sëñ Tuubaa ñëwaat na ci kër gi sax mm. ba gisanteeg euh, soxna si ak euh, Cheikh dellu bi matee am aw tur wax nañ ne daal sëñ Masamba moomu sax la jox aw këyit bind ci moor nga xam ne turu Cheikh Modou Moustapha sëñ Tuubaa moor la ci bindoon kese daal di joxe loolu nag moo indi histoire boobu ñuy wax ne maam Moor Jaara du ko tudd tuddee ko boppam hmm. waaye daal Sëñ tubaa ci këy doomam moor rek la ci bindoon hmm. yam ca hmm. wax nañ ne nag biñ koy tudd si di ko wutal aw tur ci Daaru Salaam euh, sëriñ bu soobe moo ñëwoon maam Moor maam Moor maam Jaara ñu ñëw tudd ko biñ ñëwee laaj lu nu sëñ Tuubaa waxoon ñu génn këyit woowu daal muy moor wax nañ ne sax keroog sëñ bu soobe mi ngi doon xamal Mm, sëñ maam moor Jaara di ko wax ne wutal ko aw tur kon tudd ko kon comme mu tudde ko mooru moom wax nañ ne sax foofu sax sëñ bu soobe doon na fa tooñ kii di sëñ maam Mor Jaara di ko wax ne yow sa waajur moor la tudd man moor laa tudd yow moor nga tudd ci ñun ñett nag kan la ko ci sëriñ bi sëriñ bi tuddee mm, mm, waaye leen li waral nag ñi ñi naan maam Mor Jaara da koo tudd tuddee ko boppam comme moom la sëñ bu soobe jox ndigal mu wutal hmm. Cheikh Amadou Moustapha aw tur hmm. moom tuddee ko moor yu sëñ tubaa bind kon dañuy foog ne hmm. kon moom moom moom boppam la ko tuddee moo tax nag bi sëñ tubaa ñëwee ba ñoom ñu taxaw laaj ko ko nag ñun ñett na koo ko tuddee sa ak sa mag ak sa man mii sa nijaay mu ne leen yonent bi laa ko tuddee moor nag wax nañ ne du tur carrément wu ñuy tuddee nit waaye daraja la bu nit di am maanaam dafa am fooy toll ci ci ci ci ci ay ci ay daraja comme hmm. comme nit bu hmm. mokkalee alxuraan ñu ne hmm. euh, fóori la bu boolee alxuraan ak xam-xam ñu ne kàng foori la comme yu mel noonu daal xam-xam yooyu la comme nit ki bu fekkee ne mokkal na alxuraan mokkal xam-xam jub nga ne tey boo ko dénkoon dara du ci mat yooyu yëpp nga xam ne man ngaa dajale daal hmm. juróomi daraja ñu doog ne diw aw moor la hmm. kon yonent bi nag moor la woon ndax tolloon na foofu hmm. moo tax ci ci ci ci surno yooyu nga xam ne dañ koy jox boroom daraja yi ci la ci la bokkoon bari waa na sax yu yu euh, gan gu ñëw ci njabaru Seexul Xadim gi mu génne aw tur wala aw bayit euh, joxe waaw tur wa day laal ci biir bayit woo ok waaw léegi nag kon mu tudde ko Cheikh Modou Moustapha moom itam mu mu màgg ci loolu daal moom mooy jëmm jooju di doomu soxna Aminata Lo ak euh, ki nga xam ni moom mooy Cheikhul Khadim moom nag xamul waajuram lu baree bari ndax bi rakkam ji topp ci moom bi mu feeñee jamono laata rakkam ji di tàqalikooku waajuram ci liñ tuddee ab nàmp ak yooyu hmm. soxna Aminata Lo génn àdduna hmm. kon soxna Awa Bousso daanaka moom moo leen doon toppatoo ci ñoom ñaar ci niñ ko waxee mu boole ko soxna Mariama Kunta seemul saa comme booba manal na boppam tuut tuut waaye teewul nag soxna am soxna Awa Buso man di ko booleeg Cheikh Mamadou faadal yenn yi muy defal Cheikh Mamadou Fadal mu di ko mu mu di ko mu di ko soxna Awa Buso muy wéyjuru Cheikh Mamadou Fadal waaw mu di ko defal kon ci loolu la nekk ba ni sëñ Touba demee ci géej gi laataa muy dem ci géej gi mat naa jàng mu dalal ko alxuraan ci pencum sëñ Souhaïbou mook sëñ Omar Mbacke Gelongal ak Cheikh Mamadou Fadal ginnaaw gi leen jébbal sëñ Daam Abdourahmane Lo bi muy dem Mbàkke Baari yóbbaale na leen ci ñeenti weer yooyu mu fa def Cheikh Mamadou Fadal mi ngi koy nettali bi muy dem ci géej gi comme boobu maam moo fa des ci daaru daa Mbàkke Baari Jolof mu dénk ko njaboot gi wax ko ne itam nañ eggalee seenu njàng ci sëñ ndaam waaye maam Thierno moo yoroon seen responsabilité waaye sëñ leen doon jàngal. Hmm. biñ mokkalee alxuraan sëñ Seemul Sow sëñ Touba di ñibbisi ci géej gi ak kaamilam sëñ Touba jot na ci ci géej gi. Hmm. ndax. ku ñuy wax euh, euh, nuñ koy nuñ nuñ koy waxati xam naa ne euh, danañ ci danañ ci ñëw benn fonctionnaire la woon boo xam ne sax lettre yu bëree bari ci état bi moom moo ko indi mën naam balaa balaa balaa émission bee jeex sama sama xel dem ci mm-hmm. moom moo doon ñëw Sénégal sëñ Touba mm, bind bind ay lettre jox ko euh, moom itam bi mu ñëwee bay bay bay bay delluwaat la yóbbaale kaamilu Cheikh Modou Moustapha boobu euh, sëñ Touba gis ko ak yooyu mu mat a dal xam-xam maam ci war na jàngal ko ginnaaw bi sëñ Mamoor Jaara euh, vérifié ak njàngam sëñ Touba ñibbisee ci géej gi ci ñim doomam yi mu njëkk a gisaat ci ndar Cheikh Moustapha ci la bokk. Hmm. bi mu dem gànnaar yóbbaale na ko mosaa ko xam-xam. ca yéen nag la ko tarbiya ndax ca yéen lañ mat a tarbiyoo mu tarbiyoo leen ca yéen ca yéen itam la ko sampale kër boole kook doomu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo buñ doon wax soxna Aminata Lo soxna Aminata Lo moom sax moom meññi njaboot gi Cheikh Amadou Safa njëkk a gis muy ku ñuy wax soxna Mariamu mm-hmm. Mbàkke itam tudde ko soxna Mariama Kunta mm-hmm. soxna Mariama Kunta ñu nàmpandoog Cheikh Mamadou Lamine Baara la ko tudde muy soxna Mariam Kunta moom la tudde so soxna Mariam mm. mu mm, ginnaaw bi nag soxna mi nu tollu amaat nag ñereen bant Cheikh Cheikh Modou Moustapha muy sëñ Mbàkke Madina ak kam seexa ndooloon di soxna Daba kon ñetti bant yooyu la am ak Cheikh Modou Moustapha doomu sëñ Daam Abdourahmane loola mm-hmm. nekk lu am solo Abdourahmane ci ni nga ko waxee ci Cheikh Modou Moustapha Mbacké euh, kon naam doomi ku tedd ki la Cheikh Ahmadou Bamba waaye teewut euh, fi nga xam ne fi lay jaarale gaañ yi Euh, fépp rek jaarale na ko fa mm-hmm. ba sampal ko kër ci ceen ni nga ko waxee nga xam ne foofa la ko tarbiya ndax foofa la mata àgg ci ati tarbiya ñu tarbiya ko foofa sampale ko fa kër mm-hmm. euh, léegi diiru bi fi ku tedd ki nekk Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul man naa ma nga woon ceen jóge na ceen mi ngi njaareem euh, ci diggante yooyu nekk njaareem résidence surveillée aussi ba ni mu génnee jamono en 1927 Cheikh Mourou Moustapha diggante boobu ana fan la nekkoon ci lan la nekkoon ci lu doon dox waaw xam nga bi ñu bi ñu nekkee cëyeen kon cëyeen lañ tolle ci tarbiyewu cëyeen googu sax la ñuy suñ tubaa tàmbalee tarbiyewu wax nañ ne sababu cëyee ci tarbiyewu bi sax ñu bari ñu ngi koy nettali hmm. mooy foofu nga xam ne nii ci la leen sañ tubaa wooloo ba ñëw mu ne leen du ma bàyyu kii du ma nijaayu kii du ma hmm. magu kii maanaam bis boobu daal mën nañu wax ne moom hmm. mooy bis bi nga xam ne moo démarré tarbiya bi hmm. ndax dafa am lu xewoon hmm. sëñ Tuubaa wax leen loola boobu lañ jaay ñureel ga waaw dafa am lu xewoon sëñ Tuubaa wax leen loola <laughs> d'accord hmm, jërut ñi indi ci ci ci ci ci li waraloon sababu bu wax jooju mais histoire moom xam nga lu lu xew rek am na lu ko waral sëñ Tuubaa mënut a tëb tëb rek toog li gis leen ñu toog rek mu ne leen du ma yaayu du ma maamu kii du ma magu kii du ma nijaayu kii xam nga mais am na sabab bu waraloon loola loola nag ci la leen waxee loola ñoom nag ñu xam ne kon li fi nekk kon liggéey moo koy may ñu tàmbalee tarbiya foofu mun hmm. saa demoon na ba meloon melokaan wax na ci wàllu tarbiya yéemoon nañu bari hmm. na wax nañ ne ci la bàyyi woon bopp bi muy sëq di def lu mel ne ay restav yooyu ba nit ñi doon ko wooyee njeñ maanaam bopp bi ni mu ni mu ni mu defee woon ay ay ay ay lumbu daal def ay njeñ rek waaw kay ñu naan ko hmm. njeñ kon turu njeñ wi foofu la jógee ci ci ginnaaw wax boobu sëñ Tuubaa waxoon muy ci wàllu tarbiya nga xam ne nit ñi doon nañ ko wooyee boroom njeñ li ba njeñ woowu sax bari na ci ay turandoom daanaka moom lañ leen di di di di wooye hmm. waaye bi sëñ Tuubaa gisee ne Cheikh Mouhamadou Moustapha mii nag yoon bii mu jël maanaam soo muy tudd su ci continuer ak yeewute mën naa bañ a am ci moom hmm. te itam lim leen wax ñoom dugg na leen ba kenn ku ne sëñ Fallou bind na ci ak xasida jaayanteeg sëñ Touba ñee itam futteeku tàmbalee liggéey ci liggéey bu am solo seemul saa bàyyi bopp bi bam tàmbalee sëq te kon sëñ tubaa xam na ne bu ëllëgee responsabilité mbooloo mi ci ñoom lay nekk ci la woowaatee Cheikh Modou Moussa di ko xamal ne eh, li nga nekk dëgg la Mhm. waaye nag ak nite laa gën a soxla ci yow mhm. mooy nga bàyyi nag comportement bii nga yore te te te yoraat baneen xel mhm. ndax ak nite laa soxla ci yow loolu rek la ko wax mën naa am nag nite gi mooy xamoon ne ba bu fi jógee war na koo mën a taxawu ndax am na comportement bu ko yoroon tey bu wuutoo xilaafa gi itam boobu mën naa sooxe ndax lu bari du ko xam wala ci daanu kate lay yore xilaafa gi wala mm. na nee na nga daal suñ tubaa gisoon na ne si amul soit comportement bi mu yor yéeme na mu woo ko ne ko daal ak nitee laa soxla ci yow kon il faut que mu changer comportement bi muy doxee mm. moo tax mu changer ko léegi nag mu nekk ci yéen ànd ak sëriñ tubaa mm. bi suñ tubaa jógee ci yéen nag ba ñëw njaareem ci la ci la leen waxee ñu dem wuti na fu ñu nekk am na sax ñuy wax ne sëñ Tuubaa daa dajale ay magi mag magi mag ne leen dem leen sanc waaye suñ delloo ci kàdduy Cheikh Mamadou Fadal mhm. kàdduy Cheikh Mamadou Fadal buñ ca delloo mhm. moom dafa wax ne mhm. sëñ tubaa da leen a wax ne ñu ci ñu ñu ñu ñu ci war a bokk ñu ñoo xam ne daal gis nañ bërëb te man koo bokk sax nañ ko dem bokki maanaam sanc bi néewul diw damal sanc fee diw damal sanc fee diw doose waaye dane ci biir kàddu yu njëkk yi dañ leen même bu fekkee ne am na ci ñoo xam ne ni gis nañ ay bërëb man faa dem nañ fa dem bu fekkee ne am na ñoo xam ne seen i bërëb mën nañ koo bokk nañ dem bokki fa hmm. wax nañ ne sax ci la Cheikh Modou Safa waxee sëñ Touba ci jataay ba ne ko sëñ Fallou mi ne daa mel ne moom am na bërëb ndax boobu fekk na sëñ Fallou gis ndindi ba pare nekk fa hmm. te ni gis ndindi hmm. sëñ Touba ne ko foofa fu mu mu ne ko ndindi la booba ndindi aw xur la wax ne ni daanaka mën nañoo ne foofu noonu loolu mooy so suuf la soo xam ne daal pël yi eh, kii woon nañ fa amoon na cosaan daal ci histoire ndax tur bi sëñ Fallou sax changé wu ko mm-hmm. kon mu ne ko mu wax ko fu mu nekk kon mu ne ko baax na ci la Cheikh Amadou Moustapha moom itam di ñëw sanc usnul mahab boobu nga xam ne moom lañ tuddee euh, tundoo moom itam yeneen mag sëñ moo roq ya bu sa comme ñooñ ñoo doon ànd ak Cheikh Amadou Moustapha moom itam sancoon na beneen dëkk mm-hmm. ci wetu tundoo di googu dëkk boobu sax dafa mujj gent mais sancoon na foofu ab dëkk moom itam ndax foofu itam ñooñu kon ci comportement boobu daal lañu lañu sancee kon mën naa am ci deuxième verset ba kon sëñ Touba comme ay doomam sancul woon na leen te li mu bëggoon mooy équilibre ñii bañ a foog ne dafay def ak njabootam ak lii kon yeneen mag ñi mën na leen woowaat ne leen dem leen sanc ay dëkk hmm. mais ci ndigal lu njëkk li moom li mu leen waxoon mooy ku ci ku ci mën a am foo foo nekk nga dem nekk fa koo koo xam ne ni amoo te gis keneen ko am man laa ngeen man koo ngeen mm-hmm. bokk ko mm-hmm. ci kàddu yooyu moom la Cheikh Mamadou Fadal wax ndax wax ji Cheikh Mamadou Fadal wax ci sanc bi mi ngi fi mm-hmm. noonu la ko waxee kon ñu nekk fa mu dem tundoo di lu ko jiitu nag sëñ Touba bàyyi woon na leen Touba ndax xasida googu sëñ Fallu bind jaayante ko ak Cheikh ak sëriñ di ko wax ne jën jaay naa sama njureel jënde ko taalibe sëñ Fallu ci boppam ci kàddu yi boppam nee na moom tuubaa la ko bindee kon bi mu nekkee bi ñu jógee ci yéen ba mu ñëw Touba la bind xasida gi ndax kàddu yi sëñ Fallu fii mu wax ne tuubaa la binde xasida gi waaw kon kon ñu nekk Touba mais Touba nag bi ñu fi nekkee dañuy doon def léeg-léeg ñu fanaan si fi ñun buñ ñëwee nekk fi dem tundoo di di xooli tool ya léeg-léeg ñu nekk di waaye Touba daal moo nekkoon dëkkuwaay bu mag bee magam ndax fee comme ab sanc la woon métti gu dafa xawoon a métti mais Touba fi la kër gu mag gi nekkoon euh, ndindi nekkoon tool yi fële nekkoon tool yi ci ginnaaw na bu fi Sëñ Touba bàyyi ko bañ nekk fi mën nañ faa féetee moom nekk fi waaye bu fi Sëñ di nekk Touba moo ne woon kër gu mag gi. Hmm. ndindi ak tundoo di ñoom seen yenn mag yi nekk foofu nga xam ne nii moom mooy moom mooy moom mooy tundoo di kon bi Sëñ Touba nekkee Njaareem Cheikh Moussa mi ngi ak tundoo diggante Touba ak tundoo hmm. euh, di ci ay nettali euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim euh, bi fi ku tedd ki di bàyyi ko wala waxtu wi wala saa si nga xam ne ci la ku tedd ki tànnee dëkkaale ak boromam fekkul Cheikh Moustapha al Karim Njaareem jamono boobu. Euh, ana Cheikh Moustapha fan la nekkoon lan moo ko indi njaareem. waaw loolu moom mbirum baatin la. Hmm. ci baatin moom mënuñu koo ñoo xam lu ko yëgal ne dafa war a xii xii kut ku kut dem njaareem. Hmm. ndax wax nañu bi mu jógee ñaaxeen ñëw na Daaru Salaam gis maam Cheikh Anta. ñu hmm. bi ko maam Cheikh Anta naree bernde. dafa dafa dafa mel ne lu dogoog maam Cheikh ko daal mënumaa ñàkk bañ a dem njaareem. nañ jàpp yu nañ jàpp ngan gi beneen yoon. kon loola moom mbirum baatin la néexut a lijjanti lu ko waral ndax lu ko tax a yeewu ñaax ña ñu ko ñaaf ñaafee yoon wi mm. fu mu war a jaar mu jaar fa mm, dem njaareem dem itam nangoo jël responsabilité mm-hmm. ndax bi sëñ Tuubaa yi dund ñi mi wul a même bu fëggee kenn wuyuwu ko ñi mi wut a dugg dugg mm-hmm. mais keroog nuyoo kenn tontuwu ko mu am fitu dugg Mm-hmm. kon loola moom laneen la loo xam ne neexut a neexut mm-hmm. a neexut a lijjanti mm-hmm. ndax foofu moom kon ay sew sew la ndax li fi sëñ tubaay nekk même bu fëggoonu kees li sëñ tubaay dund même bu fëggoonu kees ubbi luñ ko day toog xaar ba keroog ñu ne ko la lan moo tax keroog nag moom mu ñaaf ñaafee yoon wi dem njaarim laaj kañ ngeen gëj a gis ko baax ki ñii ne ko ñaari fan ñii ne ko bërki démb ñii ne ko euh, man keroog la ma mujjee waxal ñii ne ko nanga mu ne leen lu ñu ne ko fan ñaari fan yëpp dégguñu ko mu wax mu nangoo nuyoo kenn tontuwu ko mu ubbi bunt dem kon loola moom néexuta néexuta néexuta daal mm-hmm. lijjanti mais lool moom def na ko daal kon mm-hmm. nag loolu moom yeneen la daal ndax mm-hmm. fit bi mu am ba fi kee di nekk munu ko amu ko woon te ñemewu ko woon waaye bisub keroog daal ñeme na lool def na lool te gis na ci résultat bi euh, li war a laaj am solo mooy euh, am nga lu am am na lu am solo la wax muy li muy yàkkamti yàkkamti li muy jóge-jóge ñaaxeen ak yàkkamti te route mu war a jaar fépp jaar na fa. Euh, loolu habitude boobu lan la ndax euh, jóge nga ñaaxeen wala jëm njaareem xool ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ni mu ko mën a tuddee mooy say wayjur nga xam ne maanaam say kilifa lañ nga jaar ci ñoom loo lu yoon wax xat xat xat loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti nga nuyu leen jàmm ak ñoom soo ko wéyal yoon loolu lan la. waaw loolu itam mën nañ koo jàppee respect boo xam ne nii Sëñ Tuubaa da defoon ci ci ci ci yoon wi. Mm. ndax même Serigne Saliou mii ci ñi ko jege xamoon ko bu baax a baax nit daana ñëw même boo sàllawloo mel na mag bu fekkee ne sa nijaay la daan la diw sa nijaay la dee ko wooyee nijaay mm-hmm. même bu fekkee ne eh, papa la mat soo ñëwee jaar ci tur wi na sëñ diw danaan la deel deel wax papa diw mm. kon respect boobu daal dafa dafa dafa nekkoon loo xam ne lii lu waroon a am la te itim nit itim comme Sëñ Tuubaa neewoon na ko ak nite laa soxla ci yow mm-hmm. te am na comportement yu bari yu mu gis mu di ko def wala léeg-léeg mu yónni ko wala léeg-léeg mu doxale ko nen wala léeg-léeg mu gis mu yónni am mag ne ko lum lum naaj naaj na nga jaar ci diw doog a jàll kon yooyu itam moom munta munta ñàkk a bañ a doxe noonu ndax ki ko yar moom ci lim doxale ñëpp ci noonu la gisoon mu koy doxale mooy ñi war a bokk ñooy bokk fu ñu nekk ñi war a def nangam ñoo koy def amul xaar ma yàlla kenn amul xàjj ak seen kon comportement boobu moom lu mu tabde tabde dana ko def Mm-hmm. ndax ñooñu itam xaw na leen a gëj gis te ñaaxeen itam buñ fàtte ne Cheikh Modou Moustapha maam Cheikh Anta moo ko sanc jox ko ko maam Cheikh Anta moo sanc ñaaxeen jox ko ko te comme ñaaxeen la xëyee jaadu na itam muy bu ñëwee comme day dem njaareem jaar jaar Mbàkke war na jaar Daaru Salaam di ko xam ne ko sa dëkk ba nga ma joxoon fa laa jógee yooyu yëpp itam mën naa nekk ay ay daal en tout cas daal keroog daal mm-hmm. moom def na loo xam ne nii daal maanaam yéeme na daal mm-hmm. te itam li yi fii gaaw gaaw fexe na balaa vingt quatre heures yee mat réglé na loolu yëpp mu yegg njaari waaw yegg na njaari mm-hmm. foofu sax la ñuy ñëw euh, ñu fàttali mbokk yi ne seen xam xamle ngeen di teewlu ci jamono ji ngeen baaxu ko ànd ak Abdourahmane Lo Euh, tey Bachir Amar nekk ci présentation bi may waxtaan ak Abdourahmane nag ci jëmm ju am solo euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim euh, xalifa bu njëkk bu Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul njëkk a jiite yoonu murit ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Xadim Rasoul ab yóbbante moo fi dab léegi Moustapha jaw moom Moustapha Lut mi ngi teewlu émission bi waaye kurusam bi ñuy wax li moom la wàcc jàpp oto R21 waaw baqali <laughs> moom xanaa foor na de course gu foor lay la may nuru nag euh, moom la wàcc jàpp oto R21 ñaata la war a jar diggante suur ak marché Ocass xam naa Abdourahmane course googu boo xëyee borom taxi maam na ma dimbali rek indil ma ko Walfadjri <laughs> waaw na ma dimbali rek indil ma ko Walfadjri ah, waaw kurus gu marron la nag albaqali gu marron waaw na ma na ma ci dimbali rek indil ma ko Walfadjri incha allah uh-huh. Cheikh Moussa Cheikh Modou Moussa Mbacké sëñ Cheikh Sall itam mi ngi yëglu waaw sëñ Cheikh Sall ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a ñu koy ziar bu baax euh, léegi bi mu yegsee nag Abdourahmane ci jamono ju doy waar la lay euh, foofu moom wax dëgg yàlla man aw ma ci maîtrise muy fi fi Cheikh Moustapha Al Karim fekkee ku tedd ki njaareem nga xam ne euh, wax dëgg yàlla jamono jooju doy na waar lool euh, gëw ma ne sax keneen ku mu nekkoon ku dul Cheikh Moustapha yëf yi dina mën a sotti taxawaay boobu mu taxaw nga xam ne ñun ñëpp murid yëpp amee nañ ko ci njukkal jullit yëpp amel nañ ko ci njukkal waaye réew mépp laa wax amel nañ ko ci njukkal ndax taxawaay ba nga xam ne moom la ca taxawoon lijjanti fexe ba indi euh, ku tedd ki fii ci Touba te day mel ne traduire na waxi ku tedd ki lam ko waxoon jamono jëm koy tarbiyee ca Thièyène ne ko ak nite laa soxla ci yow day mel ne nag bis boobu taxoon na sax mu ko doon wax lu mel noonu. waaw dafa mel ne bisub keroog moom. Hmm. bis bi moo nekkoon euh, solution bi wala moo nekkoon premier examen bi comme ni ñu ko doon waxee. Hmm. mooy nite laa soxla ci yow kon keroog yëfi nit nag moo war a moo war a taxaw. Hmm. mooy jooy faju ko ni nga koy waxee naqari deret faju ko ndax. fi mu xewee moo moo dangereux muy njaareem te ci biir njaareem ci résidence surveillée ndax Cheikhul Khadim bu dul woo nag résidence surveillée mën naa dund ba génn àdduna du dem njaareem hmm. ndax jort naa ne ci histoire yoonu murit bi mu taxawee ba ni mu génnee àdduna ñaari yoon la Sëñ Tuubaa dem njaareem hmm. mooy biñ ko fiy jëlee ci 1903 hmm. di ko yóbbu gànnaar nga xam ne ni administration bi dafa sàkku woon ci mu jaar njaareem jaar Touba tul niñ koy waxee pour mën a dem Tiwaawoon mën a jël saxaar gi pour mën a dem Ndar kon boobu mooy yoonam bu bu njëkk te guddi googu sax niixul ndax wax nañ ne ci benn magasin lañ ko lañ ko fanaanal ndax tëj ko fa ndax bañoon mu mu topp guddi ki génn comme ni nga xam ne ni lañ ko ni lañ ko ni lañ ko fooge woon mm. kon ñaareelu yoonu njaareemam mooy ci 1915 ci 1912 biñ ko fay yóbbuwaat ci résidence surveillée mm. kon bu woon ak loolu Sëñ Touba mën naa bañ dem njaareem mm. kon ci résidence surveillée la nekk mm. résidence surveillée bi itim maanaam tubaab bi dem na ba xam ne kii jëm na mag am na yu bëree bëri dépassé na ko kon kon liñ man mooy teg ko di ko surveiller kon moo taxaloon ñu wàccoon ko ci kër gu mag teg ko fa di ko di ko di ko di ko surveiller kon fi sëñ Tuubaa nekk même buñ ko ko joxee mu gérer ko muumu ko woon ndax bërëb la bu ko état bi jox di ko fa ngir mu di ko fa xool mm. wax nañ ne fa foofu sëñ e eggoon na fi saa bu xëyee dana dem ci mm, euh, commandant de cercle bi ngir wan ko ne fi fanaan même bu même bu demul ndawam dana dem wane ne sëñ bi mi ngi fi même bu ndawam demut commandant de cercle bi dana yebal ay renseignements généraux pour ñu xam ba xam sëriñ bi xool ba xam ndax mi ngi fa la nekk wala nekk fa ndax résident surveillé nekk mooy chaque jour dañoo war a xam ci lu nekk mm. kon kon diiru quinze quinze ans yi sëñ Touba def njaareem noonu la fa noonu noonu la fa nekkee ci dëkk boobu di di di njaareem kon su génnee àdduna hmm. ci ci bërëb boo xam ne nii dañ koy surveiller kon jëlee ko fa du yomb kon Cheikh Amadou Sawa ni koy waxee jooy taxul sëñ Touba génn fa naqari deret taxul sëñ Touba jóge fa yëgal ko mag ñëpp itim nag taxul itim sëriñ Touba jóge fa kon xel ak nite gi sëñ tubaa sàkku ci woon gi sàkku woon ci moom rek mooy tax mu jóge fa moo fa feeñ moo fa feeñ mm. moo tax sëñ tubaa seex Moussa bi mu ñëwee ba yëg na sëriñ bi nekkatu fi mu xool ko xam ne kii moom maanaam ni nit di def wala li yàlla wax ne daal kullu nafsin saayixatil mawti moom am na mm. kon léegi nag pexe mooy am mm. pexe bi am nag mooy sëñ tubaa tuubaa la ko waxoon ne falaa pëgg nga yóbbu ma fa lu man di xew kon sëñ tubaa ci ci ci zaayir lu ko boppam kon baatin bi moo des baatin bi moom Sëñ Tuubaa mën na koo gérer ba luñ ci bëgg buñ ko sàkkoo mu yombalal ko mm-hmm. mais il faut que ab sàkkute am mm-hmm. moo tax Cheikh mun sufayi benn mm-hmm. ñaar moo ko dal mooy fi Sëñ Tuubaa nekk muumu ko ndax résident surveillé la ndax tubaab bi mi ngi fi. ndax commandant de cercle bi mi ngi fi ak ay renseignements généraux RG RG yëpp ñu ngi fi ñu ngi kon léegi il faut moom itam fu ñu yëg ne kii mi fi ndax amuñu droit jël sëriñ bi yóbbu ko Touba automatiquement te ñoom informé wuñ leen hmm. kon Cheikh Moussa li mu wax mooy dañu yónnee nit mu dem ci commandant de cercle bi mu ñëw ñu xool sëriñ bi xam ne nekku fi hmm. wax nañu sax indaale nañ benn médecin bu ko xool xam ne daal kii moom wax dëgg yàlla ñoom li ñu xam daal ci nit ku fi nekkatul moom def na ko léegi na commandant de cercle bi laaj na Cheikh Amadou Souba lu xew léegi nag lu xew ndax moom itam mën naa am pression. Hmm. moom itam jàpp na ko ndax koo xam ne. jaaxale nañ waaw koo xam ne nii. lu waaw li ko dalee 5 septembre. ah ba 19 juillet 5 septembre 1895. Hmm. ba 19 juillet 1927 lu ne jéem nga ko mënoo ah, ko. nga xëy xëy rek ñu ne la ñu nekkut fi moom. moom moom nga tiim kii hmm. tiim ko nekkut fi moom. te defoo ci dara wax yàlla ah, ah, moom moom itam moom itam moom itam tegu na ci kawam. Hmm. kon daanaka moom moo yombalal Cheikh Moustapha yi fi. ne ko léegi kat kon. Eh, nangam ak nangam ñu waxante foofu Cheikh Moussa ne ko yóbbu ko Touba laa bëgg daanaka moom moo ko wax ne ko aaw yëfi kay moom bay boo sax ñu fexe koo gaaw yóbbu foofu ndax lu ko mooy bu ko eh, eh, seex si ko topp yëgee. Mhm. mën nañ fi indi nuñ ko sax. Mhm. Euh, li ñuy tuddee euh, trouble. à l'ordre public waaw mën nañ ko fee indi. seen yëfi tubaab yi waaw waaw man nañ mën nañ ko fee indi te kon su boobaa kenn du leen mën a calmer affaire yu mel kon léegi luy xalaat seen mën soit itam waxtaan ak moom discuter am na sax ñu wax ne jox na fa tubaab bi xaalis. Euh, ak yooyu yooyu waaye daal li wér si wér mooy tubaab bi daal boppam boppam moom moom daanaka dafa mel ni tawféex moo ci ndax li gën a yombal affaire yi. Mhm. moom moo ko wax. muy loolu mm-hmm. ñu doo ko woo nag naar boobu nga xam ne ma ngi fa woon di Abdourahman Altannaxiw mm-hmm. woo sëñ Mouhamadou Diop Dagana mm-hmm. moom sëñ Mouhamadou Diop Dagana bi sëñ Tuubaa dem gànnaar la ko waajuram jox sëñ tubaa sëñ sëñ jàngal ko daga euh, foofu bi mu nekkee gànnaar yar ko kon ñoom ñaar ñooñu nag bokk nañ daal ci ñi nga xam ne ñoo taxawu sëriñ bi ci liñ tudde ak waajal ci ci ci ci njaareem ci kër gu mag gi Cheikh mhm. Mamadul Bachir booba maa ngi fa moom mooy doomu Sëñ Tuuba Cheikh Moudou Sow resté fa ndax waroon nay wax ak commandant de cercle bi ak renseignement yi muy jot moom itam mu resté njaareem toog. Mhm. sëñ ñu ñu fob sëñ sëñ sëñ sëñ Matar Xari Dieng mi nga xam ne nijaayu Cheikh Mamadul Bachir la sëriñ Bachiru sëñ Mouhamadou Diop Dagana Abdourahman Al Tannaxiw ñooñu ñooñu ñu indi sëriñ bi ci njaareem. ak chauffeur boobu nga xam ne moom lañ doon wax euh, Moustapha euh, nu mu tuddati sax hmm. euh, chauffeur bi moom moom itam mu dawal ko wax nañ ne sëñ sëñ ma yaasin sëñ Malick Basin si ak sëñ Mor Xari si ñoom ñoo ñoo ko jëlee woon Saalum doon indi ay addiyey kaamil alxuraan sëñ Touba mu dawaloon oto bi ñu ñëwee lañ joxe oto ba addiye ak kaamil alxuraan moom mu desoon njaareem hmm. moom mooy indi moom mooy indi moom mooy moom mooy indi sëriñ bi Touba Touba hmm. biñ ñëwee wax nañ ne sax euh, oto bi oto sëñ la Coro la hmm. mais foofu am na ñeneen ñu wax leneen waaye daal li wértu wér oto bi moom oto sëñ la Coro la waaye am na beneen naar nag bu nekkoon njaareem bu amoon ak oto wax na ku ñuy wax sëñ Abbas Bousso moom moom mu joon luyee oto boobu ci trois cent francs lañ wax ñu sëfaat oto boobu ay nit ñoom ñu ñëw dab si oto bi waaye ñoom oto boobu oto bi muy génn njaareen wax nañu taaluti làmp timis la fa génn mm-hmm. ñu ñëw mm-hmm. biñ ñëwee ba fii nag Cheikh Moussa ñi mu waxoon sëñ Basiiru ne leen bu bu sañoon ñu fekkee denc ba mooy ko mel ni ñoom sëñ Daam Abdourahmane Lo maam Thierno mm-hmm. sëñ Mbàkke Bousso ak ñooñu ñooñu ñu dem jëli leen ñoom itam ñu ñëw Mhm. moo tax yëf yi guddee moo tax sëñ bi dix heures fekk na ko mu egg si tuubaa mais mag ñooñu fi ñu dëkkoon dafa sori mhm. sëñ Daam Abdourahmane Lo bala ñu ko wooyee Ndaam Daaru Xalimul Xabiir te booba Touba amutu yoon amut dara mhm. oto bi day talax talaxi ba egg sëñ Mbàkke suñu jëli ko Gédé maam Thierno ñu jëli ko Daaru Muxti moo tax bala eh, bis bi ñoo ñëpp bi ñuy dajee nag daanaka jullik fajar fa jot na moo tax sax wax nañ ne eh, biñ demee ba war a jébbal boroomam sëriñ bi sëñ Mbàkke bi sax dafa wax ne nañ julli ba pare mm-hmm. ndax sëñ bii lu masaa di deflu bu julli jotee lu koy ah moo tax dañuy julli fajar ba pare doo ah, euh, mm-hmm. mu nekk euh, yoon wax am solo woo xam ne Cheikh Moustapha Al Karim euh, def na foofu la nga xam ne foofu itam benn problème rek mooy lim bi ñuy lim daal ne ñaar fukk ak juróom ñett ko fekkee moom mm. man lim boobu moom vraiment ànduma ci mm. ndax mm, la ko fekkee mën na koo ëpp te foog nañ ne ëpp na ko Hmm. ndax mag ñooñu du ñoon ñëw ñoom dong sëñ Mbàkke Buso mënut a jógee gedde mel moom kese hmm. sëñ Daam Abdurahmaan Lo mënut a jógee ndaam daaru Alimul Xabiir mel ni moom maam Cheikh Anta mënut a jógee Daaru Salaam moom te oto ba itam ndax maam Cheikh Anta fekk na ko hmm, waaw waa ci misaal rek ndax ñi ko ñi ko ndax euh, sëñ Abdu Lahat wax nañ ne keroog moom dafa mel ni yëg na ko wax na ne ñëw na ba fekke ko mais kenn woowu ko woon ah dëgg la ah, waaw mm-hmm. xam nga xam nga xam nga xam nga mm-hmm. xam nga lob yi kenn du leen lim te sëfoor yi itam xanaa <laughs> ca ca ma lañ bokkoon loolu dëgg la ah loolu dëgg la ah waaw sëfoor yi ca ma lañ bokkoon te sëfoor bu ñuy lim ab liste duñ ko mm-hmm. fi boo demoon Dakar ànd akub sëfoor booy lim da nga naan maag sama benn xarit ba fa nga koy teg te sëfoor baa la <laughs> la sëfoor <laughs> ba nit bu ñuy lim duñ boole sëfoor fi mu toll maag yow bu ñu àndoon Dakar akub sëfoor ñaata nit ngeen nga ne maag Abdourahmane ak sëfoor bi oh, ci yegg dañ naan Magal Abdourahmane àndoon Dakar rek ba chauffeur bi fële te chauffeur bi tim ci mbooloo mi la bokk ci liste bi la bokk euh, léegi li nga xam ne moom la ci mën a jële ci wàllu woowu mooy euh, taxawaay bi Cheikh Moustapha Al Karim taxaw foofu ba li nga xam ne moom la yoonu murit mënul woon a ñàkk Sénégal sax laax mënu ko ñàkk muy Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba mënuñu ko woon a ñàkk kon loolu euh, benn poñangoog boo xam ne rek wax dëgg yàlla ameel nañu ko Euh, Cheikh Moustapha al Karim yeneen yi ci desaat mooy nag léegi euh, Abdourahmane ku tedd ki ku tal ne Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon fi jiite yoon wi ñëpp topp ci ginnaawam jaaxal réew mi jaaxal tubaab yi bal ni ko waxee léegi tubaab bi mënut a gëm ne kii jóge na fi kooko tey jii euh, làqu na ci sunuy gët tànn dëkkaale ak boroomam bàyyi fi nag njaboot gi Cheikh Mamadou Moustapha al Karim war a nekk xalifaam bu njëkk war a toog ci jal bi jiite yoonu murit loolu mel na ne du doon lu yomb ci Cheikh Moustapha al du doon lu yomb itam ci yoon wi ana daal googu ak nite googu moom sëriñ bi santoon feeñaat foofu kon ba tax mu mën a def li def ci yoon wi soo ko moom diggante boobu euh, ak dalam akuk niteem nan la ko mën a gérer ba lépp mu teg yoon yoon wi ci raay boo xam ne raayu njub la raay boo xam ne Euh, ba tey lii ñuy dund tey jii ci yoon bi ba ci jamono ji muy organisation bi moom moo ko tracé bàyyi ko fi euh, bàyyi ñu ko ci euh, ñu koy dund loolu nan nga mën a expliquer ak dalam ak niteem na mu ko téye ba tey jii alhamdulilah. waaw Cheikh Moustapha moom le 19 juillet 1927 àdduna moo këpp ci kawam. àdduna ah. moo hmm. këpp ci kaw Cheikh Modou Moustapha. Hmm. mais këpp teg àdduna googu nag ak àdduna ni mu diisee. coono la laaj hmm. waaye ak ak ak ak dëgëritim la laaj moo tax ni nga ko waxee mooy même même tubaab bi dafa dafa dafa dafa duñ ko waxee sax dafa dafa. dafa déstabiliser waaw kay waaw moom même même tubaab bi dafa feeñ sax ci moom. Hmm, hmm. ndax tubaab bi même amoon na problème maanaam est-ce que sëriñ bi réellement. li xew moo yombul nag. waa dem na daal. moo tax rapport yi nga xam ne moom lañ doon yónnee diggante njaareem. ak ak ndakaaru njaareem ak ndar ndax boo fekk na ñu toxal capital bi ndakaaru ndar yóbbu ko ndakaaru bare 1921 lañ ah. toxale capital bi ndar hmm. yóbbu ko ndakaaru hmm. mais kon rapport yi diggante ndakaaru ndax gouverneur léegi général bi nekkutul ndar mi ngi ndakaaru hmm. léegi kon rapport yi ba tey nag ne ndar administration bi eh, ndar mooy gérer Diourbel ba tey hmm. Dakar gérer ndar léegi hmm. mais rapport yi ni mu doon jógee di ñëw demoon na ba mujj gi sax moom tubaab bi ci boobam sax moom moom moom affaire yi xaw na koo xaw na koo jaaxal moo tax Cheikh Moussa toog na njaareem bis lu ëpp sax deux mois ndax même sëriñ bi njaareem lañ ko ñaanale hmm. même sëriñ bi njaareem lañ ko ñaanale moo tax bi bi mu génnee àdduna maam Thierno bi ñu taxawoo sëriñ ba pare moom dafa dem dafa dellu daaru Muxti continuer dem njaareem mm-hmm. moo tax sax ñuy wax ne bi sëriñ bi génnee àdduna ci àllarba ji wala ci talaata ji ñu denc ko ci àllarba ji ba seddi alxamis ci alxamis jooju maam Thierno njaareem la ko fanaan ba seddi ajjuma ci la jiitee jumaa yi njaareem bi ndax fekk na sëñ Tuubaa jumaa ji pare woon na mais kenn daw ci jiite ajjuma nga xam ne ajjuma jooju rek la njëkk jiitee juma juma juma njaareem mais même tey ni kilifa yi de buñ génnee àdduna ni la administration bi defoon porte yëpp ay takk der lañ fa tegoon ñi ñuy surveiller di calmer nit ñi ni naa nga mën a te booba itam nag ah takk der itam ñeme ko yombul hmm. même buñ ñëwee fas seen kanam hmm, masque wu toog hmm. même boo ñëwee ak ak loo bari bari bari xadar da da nga da nga gérer ba romb ba romb ba romb ba takk der ñoom itam xamoon nañ ne duñ def dara mais ci jamono jooju daal moom takk der vraiment cëram wàccugul woon daal mag nit ñi am na fuñ ko tegoon kon ñoom ñoo géré woon lii kër gi cercler ko lépp tim porte yi ñoom ñoo fi newoon di bàyyi nit ñi ñuy dugg ak génn kuy ziare ziare ku de ku bëgg a ñëw Touba ñëw Touba ziare ku pare boo ñëwee bëgg a ziare Cheikh Moussa ziare Cheikh Moussa boobu ñoom ñëpp ña nga ña nga ña nga ña nga ña nga ña nga ña nga njaareem hmm. moo tax tubaab bi le 19 ba le 25 ñoom génnewuñ benn rapport di wax ne diw la ñuy waxal Mm. te gis nga mm. administra gis nga kilifa yii nii même kilifa yi nii muy kilifa xalifa généraux yi ku ci génn àdduna il faut que état bi jël responsabilité wax moom ku muy waxal. Mm. maanaam ki nga xam ne moom moo fi toog yees euh, di xel général. waaw même même bu fekkee dafa am coow. état bi moom fu mu jaar jël responsabilité ci ñoom ñaar mu tànn ci kenn. waaw loolu ñu ngi sant loolu loolu mënut ñàkk. Hmm. ci état ak moo waral fi mu toll nii yenn kër yi am coow yëpp ñu ne état moo ko jaxase mais état fu mu jaar am kenn kum ci waxal état du toog mukk lu mel ni famille moo tax gis lébu yi wala daara gis nga ko saa état ñëwee day jël responsable moo tax moo tax bi sëriñ Saliou génnee àdduna Ablaye Wade bi mu ñëwee rek déclaration bi mu njëkk a def mooy Alaaji Baara mooy xalifa général des Mourides. Mhm. ndax mënut a ñàkk état fu mu jaar am kenn ku muy waxal ci mbooloo moo tax bu coow naroon a am ak bu nirta am état mu wax na ba pare. Mhm. léegi nag keneen ku nar a wax nag bu alaaji baara nee nangam waxi alaaji baara la ñuy gën a def bu màggal amoon ñu def ñaari tànt tànt ba alaaji baara defar ci la état yi def. Mhm. Hmm. état moom lay defar CRD ak yooyu loolu moo waral nag hmm. état ñoom itam toog nañ lu mat hmm. cinq jours waxuñu dara dañoo bañ a tudd ñenn nag waaye moo waaye loolu alhamdulilah ñu ngi sant sëriñ waaw d'accord waaw moo tax moo tax nag moo tax nag moo tax nag ci le vingt cinq juillet mille neuf cent vingt cinq nag le mille neuf vingt cinq vingt euh, sept te la état jël responsabilité am ne Cheikh Moudou lay waxal léegi ci yoon la la le vingt cinq juillet sëñ bi le dix neuf lañ yëg ne dem na diggante le dix neuf ba le vingt cinq ak moo amoon ci état bi mais le vingt cinq juillet mille cent vingt sept la hmm. état bi jël responsabilité hmm. wax ne léegi ci ci communauté yoonu Mouride Cheikh Modou Moustapha lañ ciy waxal moo toog toogaayu titre bi ñuy tuddee xalif général des Mourides bien vrai que booba tur bi sax génn amul amul waaw tur bi moom hmm. daanaka ci sëñ Abdoulaye lañ ko médiatiser Basiru Kunta bii nelaw bokk ci daanaka likkayee turu hmm. yi mu doon def bokk hmm. na ci li créé eh, turu xalifa général des Mourides daal buñ ko médiatiser nii ba am doole moom Basiru Kunta moom ci la bokk ndax ci reportage yi doon def ci RTS moo taxoon sax bi ko sëñ Abdoulaye njëkkee dégg affaire bi touché woon ko ba ba mu waxoon ci déclaration bu ne turu xalifa général des Mourides gënulu ko mais bu des Mourides mm. moom mm. Bachir Kunta moom daanaka mën nañu wax ne tur bi daanaka ci moom la njëkkee daanaka mm. moo ko médiatiser daal ba comme tey xewti xewtu yam bu nit waxee dara daanaka gars yi kenn ku nag sinap ko <laughs> bi mu ko njëkkee dégg affaire bi frappé woon ko ba mu waxoon ci wax jooju moo tax ci le vingt cinq juillet mille neuf vingt sept nag la état bi jël responsabilité wax ne ci yoonu Mouride Cheikh Moussa la ciy waxal ñu tudde ko grand marabout de Touba Mm-hmm. waaw ñuy wax ak moom léegi nag Cheikh Moustapha nag léegi kon état bi am na am na soutien kenn ku am doole ci niñ ko man di waxee teewul nag yoon moom amul benn benn rëq mm-hmm. mais teewul mën nañu wax ne nag am am am na soutien mm-hmm. kenn ku am doole. boole ko nag yenn seex si tàmbalee kii mais yoonu murit yi nag ci biir yoonu murit nag amaat nag ay ay kii amut amut luñ tuddee ay rëq-rëq mais nag mag ñi nag moom bu ñu waxantee dëgg rek. kenn ku ne nag da ngaa sa mbokk nag dem jaayante ak moom hmm. hmm. kenn ku ne da ngaa xool ki la gën a jege ci deret wala ci mbokk wala ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci comportement wala koo gën a juboon nga dem jaayante ak moom loolu moom moo ci amoon hmm. moo tax boo ko demee kokk yi ñu sant loo jëm noonu semul sa lañ gënoon a àndal boo demee mm, mbaakol ci ñi sant jóob jëm noonu Cheikh Mamadou Bachir lañ gënoon a jege. Mm-hmm. Saalum noonu ànd ak Cheikh Mamadou Bachir. bien vrai que doon sax ay ay ay. kii waaw waaw mais mais mais mais mais ñu wax nag nit ñi comprendre soo mm-hmm. demee ci mbusoo bi gi mm-hmm. ñi nga xam ni nii tey seen maam dafa sant Mbàkke ci mbusoo bi gi maanaam dem ànd ak sëñ Abdou Khadir mm. ñi xam ne seen seen maam dafa sant ñang wala dara dem ànd ak Cheikh Mamadou Fadal mm. moo tax moo tax moo tax boo mm. xoolee askanu Mbusoobe sëñ Fàllu ak sëñ Abdou Khadir ñoo bokk benn seen seen yaayee bokk benn baay sëñ Mbusoobe leen jur moonte sëñ Fàllu moom ak sëñ Abdou Khadir waaye bu doonee ci ci ci ci ci ci ci deretu Mbusoobe Mbàkke sëñ Abdou Khadir moo ku ci gën a bokk ndax soxna Awa Buso waajuram wu jigéen soxna Mati Ñang la tudd kon day dem aafe moo tax boo xoolee ñu yoonu murit cheikh si nga fii féete afe sant ñang jëm noonu dañoo dem fekki cheikh dul faadal mbusoo bi mbusoo bi gi ñi nga xam ne tey seen waajuru jigéen dafa laal ci afe gi ñoom itam dem mm. ne fekki cheikh mamadul faadal mm. boo demee ci sëñ abdou xaadir ñoom sëñ mbàkke busoo sëñ Mbàkke Buso yaayam Mbàkke la sant ñooñu ñooñu itam dem dem dem dem dem dem dem fekk sëñ Abdou Khadre mhm. soo demee ci yeneen cheikh yi noonu mboo xoolee kenn ku ne nag léegi mhm. yooyu itam moom amoon na fi mhm. mais yooyu tëgul woon nag maanaam daan ku comprendre doo mën a doo doo ku comprendre doo mën a comprendre mais loolu moom après nag waaw léegi nag yooyu tàmbalee nag si Cheikh Amadou Sarr nag moom doon général bi tiim loolu yëpp nag ah, koy waaw euh, di kilifa ak ñëpp ak lu xew léegi nag mu war a am organisation bu mu war a teg ah, yoon wi di doxe noonu ah. loolu am na lu mu ca liggéey. waaw léegi nag mm. la mu liggéey moom doon loo xam ne ni taxawaay bu bu bu bu bu bu bu am solo la ndax responsabilité li muy wax ne àdduna moo ko ci kawam li koy xaar dafa bari ndax Sëñ Tuubaa bana fi ay doom yoo xam ne nii ñii fukki at ak ñett la ñam ñii fukk ak ñaar ñii fukk ak benn ñii ñi ngi toll sax ci juróom ñetti at ñii juróom ñaar kon te ñooñu di ay góor ñooñu di ay jigéen kon léegi ñooñu il faut ñoom ñu xam ne tey adduna dana fexe fee mun sa war naa fexe ba ñoom duñ màgg mukk ne bu fekkoon sama baay mi ngi dund ba léegi lii du ma dal xam nga fi tollee léeg nga gis nit ne man de sawaay li ma teel a ñàkk baay rek a jàpp waaye bu fekkoon sama baay ngi dund <laughs> danaa jàng danaa am nangam danaa def nangam ndax sama baay fi mu newoon kon loolu mu jaar dawal ko ay rakkam ndax loolu moom bu fexee ba kenn ci rakkam wax ko rek musiba la te responsabilité nag loolu bu dangereux moo tax fexe na ba rakkam yépp ku ci mat a dem kër mu yóbbu la kër ñaax la fa dig fa sax loo xam ne ni yow jomm na la macha allah ñi mat a jàng mu jàngal leen ñenn ñi mu tafool leen ci seen bopp moo tax soxna may yi nga xam ne bokkoon na ci ñi ci gën a doon wax ne moom bi mu xamee ne Cheikh Moustapha magam la maanaam mooy bi mu xàmmee mm. ndax jortoon na ne taalibe baayam la ndax ni Cheikh Moustapha nangoo woon jikkoy taalibe la doon waaw kay moo ci ñooñu mm. ab sëriñ la leen defoon waaw waaw waaw mm. bi ci des xam ne moom lim leen magee bariwul ñoom itam beneen cas la muy ku mel ne ñoom sëñ Fallou mm, ñooñu ñooñu itam beneen génération la nga xam ne ñooñu itam maanaam ñoom lim xam xam nañ ko responsabilité yi mu yor ñoom itam yor nañ ko. Hmm. kon ñooñu itam fu mu jaar di leen suuraale ci li muy def. Hmm. ndax yëf yi nag comportement bu bu bu bu bees la ki fi newoon moom nekkatu fi. Hmm. kon il faut nag waxtaan di am. ji mooy yenn seex si nga xam ni fees nañ dell soxna yi nga xam ne ñoo meññi nag ay rakkam nag ñooñu itam. ñooñu itam ñu ngi fi ñooñu itam nag stratégie bi si amul soo defoon mooy wax nañ ne dajale woon na leen wax leen. Mm-hmm. am ñoo xam ne ñoom ñëpp maase woon nañ ne ku ànd ak Serigne Touba ba mu jóge fii àdduna mënatu may ngay ànd ak keneen. Mm-hmm. waaye ci ci ci ci nit ak Cheikh gi gi Serigne Touba sàkku woon ci moom. Mm-hmm. tax na mu fob ñi nga xam ne nii foogoo ñi nga xam ne nii ci biir soxna yi matoon nañoo maanaam ñoom ñoom liñ wax. mënees na lee cee fekk si te ngaañ du am ñooñu ñu ànd ceeg ñoom ñu tuddi leen barsàq mais am na ci ñoo xam ne nii nag ñooñu duñu woon yenn mag ñi ñoom seen mais ñooñu dañ leen faboon joxaat leen ñeneen ku mel ne soxna Aminta Amar mi nga xam ne mooy waajur sëñ Moustapha sàmba sëñ mag moo ko yoroon ak ñeneen ak ñeneen ndax ñooñu itam tey mm. imaginer tey bu bu fekki woon ñee est-ce que sëñ Moustapha sàmba dana am dafa am sàmm itam yoon wi mënu koo ñàkk. dégg naa mbir mbir yu baati ne daf si am. ah waaw mais mooy yooyu quoi xam nga moo ko fi bàyyi xam nga yooyu xam waaw xam nga yooyu xam nga yooyu responsabilité yooyu moo tax nag yooyu itam. Hmm. Hmm. moo tax ci nit ak si amun sufa ñenn ñi nga xam ne foog nañ ne ñii moom lii moom man nañ ko ñu fekk si leen ci hmm. ñeneen ñi nga xam ne nii nag tey mën naa am tey laneen mën naa amaat ci seen ginnaaw kon nag ñoom itam nag ñu defal leen laneen ñoom loolu itam nekk loo xam ne itam taxawaay bu mat sëkk la ba kenn ŋàññi ko cheikh si nga xam ne dañoo feesoon dell ku mel ne Cheikh Ibra Fall jommal ko yombut maam Thierno jommal ko yombut maam Cheikh Anta dërëm ak ngërëm wax dëgg yàlla am ko am ko nité rek daa jafe loolu ñëpp di am dërëm am am ngërëm am ngërëm am dërëm ba pare na cocc moom mm-hmm. daa jafe mm-hmm. kon kooku mm-hmm. itam yilif ko yombut Ah? Mm. nga jël ku mel ni sëñ Mbaye Jaxate ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi kon ñoo ñëpp itam mu gérer leen mm-hmm. mais nag fop mu Mamadou Bachir nag ñi nga xam ne nii rakkam la te amoon na jot nag jamono jooju nag mu def ko mm-hmm. bras droit am nag mm-hmm. mu sës rëkk nag ci moom ba tax na sax yoon wi ci bakk yi ñu amoon xam nga yoonu mu amoon na ay slogan nag yu njëkk Mm. léegi moom la gaa yi bàyyi solo gaa yi mais amoon na jëf jël mm. amoon na gaa yi dañ daa wax jëf jël ay ay yooyu mm. ay ay Moustapha Magi Bas waral Magi Bas tamit Magi ñëpp waaw waaw waaw yooyu xam nga yoon wi mais léegi yoon wi amoon na ay bàkk yoo xam ni ñaare boo ko masaa wax rek dañuy xam ne lii moom yoonu murit a ko moom mais léegi nag gaa yi ay gants yi nag sawaak yooyu mais bu njëkk moom yoon wi na loolu dem du dara ay ñàkk tedd ak ay jëf jël ak ay yooyu nga yoo yoon wi da ko daa bàkkoo yooyu itam yooyu itam amoon na fi kon loolu itam nekk ci taxaw taxawaay yoo xam ne ni fexe na itam ba taxawaay yëpp itam mu réaliser ko te amul benn problème. Mm-hmm. loolu nekk na lu am solo muy euh, euh, taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ginnaaw ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xam naa dañuy baral li ci des bala ñuy àgg ci téléphone bi ndax euh, war na noo wax itam yi nga xam ne moom la defal sëriñ bi ginnaawam wax nañ indi na ko Touba taxawu na yoon wi tamit ba organisation bi nga xam ne moom lañ fi nemmeeku moom mooy ki ko fi tëral euh, lu mel ne euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp kër yi euh, nu nu nu nu nu ab xalifa mën di toll ak ay atam man di toll waa kër gi nañ maase topp ci ginnaawam jiital ko loolu am solo la loo xam ne liggéey na ko ba tey beneen mbébétu sëriñ bi muy jumaa ji nga xam ne bokk na ci lim doon ñaan boroomam sax ba ci biir tukki bi ñaan na ko suñ borom suñu borom may na ko ko faaw kon jumaa ji taxaw waaye tam mu batale woon ko Cheikh Mourou Moustapha al jooju mu mel ne def na ci liggéey bu am solo def ci ak mat ba lijjantiwaale ci yeneen yoo xam ne sax yu am solo lu mel ne ay suufu su Tuubaa si xëy mel noonu lan nga mën a eh, indi ci yooyu. waaw loolu itam bokk rek ci nit gi ko sëñ Touba moom mooy feeñ moo tax ci ci nekkinu Sëriñ Touba sëñ fexe na ba réaliser jumaayi njaareem mag ñi tabax ko ci nekkinam ba mu egg mu sàkk woon beneen jumaa muy Tuubaa ndax ñaari jumaa yooyu la ñaanoon hmm. wax nañ ne yónni woon na sëriñ Mbàkke Buso mooy lettre bii ñu gis mooy lettre yi autorisation jumaa yi Touba ji nga xam ne sëñ Mbàkke moo ko bind hmm. yaakaar naa ñu bëree bëri am nañ ko boobu ci nekkinam la sàkk woon ci sëñ Mbàkke Bousso mu bind ko mu boole woon ca projet ba pour ñu ko doon taxawu mooy maam Thierno Cheikh moodu Moustapha ak ñenn itam ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy mag ñi nga xam ne ni ñoom ñoo waroon a taxawu liggéey boobu liggéey boobu wax nañ ne demoon nañ ba versé ci 4 millions ci xaalis boobu nga xam ne moo fi amoon wax naa ne le franc euh, franc CFA bi ci 1945 ginnaaw bu fi Cheikh Amadou Sowa bàyyi ko wala lañ koo indi damaa juumul su ma xaw ma octobre 45 la xaw ma novembre mais soriwul ñaari weer yooyu la fi franc bi ñëw euh, kon ginnaaw Cheikh Amadou kon xaalis boobu fi amoon ñu versé woon ko ci benn banque Afrique kon. jumaa ji ñu ngi bu njëkk ci nekkinu Serigne Touba bu fekkoon ne plan bi amul woon ay jafe-jafe. mi hmm. ngi nekkoon ci penku penk diggante fi ñuy jullee it ak armeer yi wala fi ñuy jullee it jàpp armeer yi foofu la jumaa ji newoon. Hmm. fii fii jumaa ji nekk nekkoon kër Serigne Touba. Hmm. nga xam ne kër Serigne Touba gi day féete soowu jumaa ji féete penku armeer yi féete waat ko penku. comme ni mu demee nii rek waaw. noonu lañu plan woon jumaa ji mm. tàmbali woon nañ koo liggéey wax nañ ne ba tàmbalee gas li génne yenn kii yi far daal mu am ay coow ñu annulé contrat bi moo waral sax bi bi bi sëñ Touba génnee àdduna comme fii ñu jullee it maanaam moo nekkoon jàkk ci bi fi sëriñ Touba di nekk ci dëkk bi fii ñu ko denc jumaa ji moo newoon këram mm. maanaam su génnee këram rek day dem ci jàkka ji mm-hmm. armeer yi féete penku jàkka ji mm-hmm. kon place jullikaay it bi moo nekkoon jàkkay sëriñ bi moo nekkoon jàkkee sëriñ bi ci bi hmm. sëriñ bi nekk Touba. Hmm. moo tax bi ñuy defar jumaa ji ci plan bi bi bi nekkee ñu defoon ko foofu. Hmm. bi bi waaw nga xam ne jàkka ñu yaatal jare yi doon. waaw léegi bi sëñ bi génnee àdduna nag lañ ko denc ci biir këram. sëriñ bi ñu denc ko ci biir këram ci biir néegam. waaw loolu moom loolu moom faaw mu am ndax mu nuru ci soppeem ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam. bi ci biir këram ci biir néegam lañ ko denc. moo tax bi ñuy defaraat jumaa mënuñu koo defar fiñ kon fiñ ko plan woon bu njëkk kon bu boobaa jumaa ji day wan ginnaaw sëriñ bi hmm. moo tax Cheikh Modou Sowa def jumaa ji ci biir kër sëriñ bi ñu annulé kër sëriñ bi macha allah macha allah waaw ah, loolu moo waral jumaa ji mais hmm. sëriñ bi ci biir këram hmm. lañ ko denc bi ñuy defar jumaa ji lañ xam ne buñ ko bàyyi woon fee ko sëriñ bi defoon léegi booy julli da ngay wan sëriñ bi ginnaaw moo ñu annulé kër gi def fi jumaa léegi dafa te na lu am solo <laughs> léegi nag loolu kon erreur boobu amoon ci nekkinu sëriñ bi hmm. kon Cheikh Mouhamadou Moustapha moom léegi war na koo daw ndax benn mooy li tax mu war koo gën a daw sëriñ bi mu ngi Touba hmm. te Touba aaru guñ ko ndax ci ci ci ci territoire Sénégal la bokk hmm. même comme Sénégal amagul indépendance ba nëgën itam mais teewul ci territoire Sénégal lañ ko boolee moo tax ci conseil yi mu amoon. suuf su réew mi la waaw suuf suuf suñu réew mi la. moo tax ci conseil yi amoon ñu xam ñu xamal ko ne. li amoon ci jamonoy sa waajur fexeel ba ba mu amaat nu ñu waxtaan wax leen nu muy fexe ba ma ñu ne ko mais euh, suuf si Sénégal amagul indépendance tubaab bi réew yen yenn yenn yenn kii yaa ngi jënd ndax Gambie ngi nii anglais yi dañ koo jënd ci français yi ñu jaay leen ko hmm. kon naneen ak naneen mais ñun boo demee kay soxla li nga jënd kay ñu titre foncier la ko ci la yabale ma suran suran sëriñ ma faal ngóone ak ñeneen comme niñ koy waxee ñu dem France négocier dossier bi ñu titre foncier ko muy cinq kilomètres carrés cinq kilomètres carrés yooyu nag boobu fekk na sëriñ bi nekk Touba moo tax Cheikh Moustapha waxoon ne eh, ñu ñu jaay ko ko cinq million ci xaalis boobu amoon muy franc Afrique boobu su ma su ma cinq millions yooyu nag cinq kilomètres carrés yi ñun ñu tàmbalee ko fi sëriñ bi tëdd côté bu nañu natt fa deux kilomètres cinq cents mm-hmm. mu cercle sëriñ bi. penku sow ndeyjoor càmmoñ. waaw bu ne deux kilomètres cinq cent. deux kilomètres cinq cent moo tax rokaat bi. Hmm. diggante foo ci taxaw ak jumaa ji deux kilomètres cinq cent la. Hmm. rokaat bi. Hmm. foo ci taxaw rek ak jumaa ji deux kilomètres cinq cent la. deux kilomètres cinq cent foo ci taxaw rek côté yëpp waaw côté yëpp moom tëli boobu rokaat boobu foo ci hmm. toll li ñu tudde corniche hmm. foo ci taxaw rek sa digganteeg jumaa ji deux kilomètres cinq cent xam ne loolu Cheikh Moussa Karim defoon titre foncier waaw ngir ñu mën a taxawal jumaa ji jumaa ji kon léegi sëriñ bi lu mën di xew moom da ko daandee de kilomètres deux kilomètres cinq cent ci côté bu ne ci côté bu ne hmm. coow lu mu bari bari bari coow lu mu bari bari rek deux kilomètres cinq moom da ko soree sëñ bi ñu doog a tàmbalee réglé nga xam ne loolu mooy li ñu tuddee xurumu Tuuba waaw moo tax waaw moo tax mag ñi mm. ci jamonoy politique bi ñuy wax ne maanaam fexe leen ba lu ma ji na ko Cheikh mm. Moussa sàkkoo woon na génn corniche na génn xaw ma euh, banque yaag mm. wax ne daal lu lu mën di moom moom moom lu mën di xew rek na ko soree sëriñ bi moo tax ñu ñu rokkaat ko noonu moo tax bi ñuy natt dëkk bi ñu génn de kilomètres yi Sëñ Abdou Lahad moo ko godrongé jaarama am di waaw <laughs> léegi ñu titre foncier ko ci mois de septembre 1928 hmm. léegi mm, mu song nag li ñu tuddee liggéey bi ndax aar na sëriñ bi ci de kilomètres cinq cent côté bu ne hmm. muy cercle bi kon léegi li am solo mooy ci ci ci ci ci ci euh, onze novembre 1929 ci la ci la njëkk a tàmbalee gas raay bi 11 novembre 1929 ñu gas raay bi raay bi raay pour lan waaw raay bi mooy comme aar na sëriñ bi ci 2 kilomètres 500 ndax 2 kilomètres 500 yooyu bu ko aarul woon sëñ bi hmm. mais état bi bu ko neexee tey fii daaray kaamil nekk ñu def fépp stade ko moom suuf si titre foncier la état ah, état moom suuf foncier mais liggéeyu jumaa ji laa la laaj mais yow nga may tudd ay raay waaw mooy mooy mooy li ma la moo tax nag léegi comme aar na sëriñ bi fi mu nekk ba pare. Hmm. léegi nag mu dem ñaani waat autorisation nag pour mën a defar jumaa ji. Hmm. léegi nag mais bi muy defar jumaa ji bañ may ko autorisation dañ ko hmm. xamal ne ko autorisation bi nga am ba pare léegi soo bëggee liggéey ab jumaa. jamono jii moom tëli bi fi gën a jege Cees la yem. Euh, tëli bi fi gën a jege Cees la yem. jëm Ndar kon yoon wi fi gën a jege mooy saxaar gi. te hmm. njaareem la yam la yam jëm Kaolack hmm. soo manee nag man mën nañ laa le raay bi njaareem indi la ko Touba mais da fay ndax budget bi ñu yor programme wuñ ci woon abraay raay ab raay diggante njaareem ak Touba te programme wuñ ci woon sax Touba encore itam hmm. kon bu fekkee da ngaa bëgg nag euh, ni ñu koy waxee xaw ma nu koy waxee. Mm-hmm. budget budget boo xam ne dañ koy dab dabaatal am na nu ko mm-hmm. gars yi tuddee. Mm-hmm. lool moom yaa koy génneel sa bopp yaa koy euh, yaa koy mottali. yaa koy mottali loola ngir indi woon ay jumtukaay yi war a defar jumaa ji la. waaw kon mooy sababu raay bi. mooy sababu raay mm. moo tax Cheikh Modou Safa nangu laaj Touba Touba Njaareem je crois quarante cinq kilomètres la. mu jënd ko kilomètre bu ne deux cent mille ci xaalis booba hmm. ça fait million millions jamono jooju jamono boole ko tubaab bi xam ne seen yoon mu am na am na dix millions hmm. te nar na koo génne mais mu tegal ko ci ay sar ne ko nag ginnaaw lii lépp bu amee ouvrier yaa leen di fay par weer donte ci yoon bi lañ bokk waaw déedéet ñeneen ñi ouvrier yi bokk ci yoon yi moom moom ñoom moom mën nañoo jaayante ñoom juruñ ñëw liggéey ngir mais mais dafa am ñoo xam ne nii nag ñoom ñooy chefu mhm. ah les chefs de chantier waaw les chefu chantier yi ñi ñoo jiite liggéey bi daal waaw waaw ndax ferraille yi am ñu leen jiite ay technicien lañ waaw ay yi ñooñu mhm. moom Cheikh sa moo leen di moo leen di moo leen di mhm. fay boole ko ñu imposé ko ne ko weñ ak weñ ak ak suuf ak ciment dafa diis il faut gaari lekk yàpp nga xam chaque jour ñaari nag lañ doon rey. loolu ci condition yi la bokk. ñaari nag lañ doon rey ak ñeenti ñeenti yi ceeb. Eh. ak seng ak juróomi saakuy ceeb daal. Hmm. lañ doon togg bis tax bi raay bi pare rey rey na ñaari junni yi nag hmm. ñaar fukk. ci jamono jooy te fi mu doon nii ba ba ba mille neuf cent soixante de laa la wax vingt neuf ba mille neuf cent soixante bari na mag ñu nekk fii nii nii nii. Hmm. seen ngénte togguñu ceeb. tey. laax lañ leen ngénte wala beneen façon kii ndax ceeb yombut booba te Cheikh Modou te Cheikh Modou fexe woon na ba euh, maanaam quatre cent cinquante tonnes ceeb financé nañ ko ci gasum raay ci gasum raay bi waaw. te li ko te te boobu vingt neuf la ba trente et hmm. te li li ko dalee mille neuf et un ba bari na mag ñii daagu fii. suñ su tey bu seeni waajur taxawoon na leen diw mi jur ko jur ngénte ko te ngéntewu ma ko ceeb ndax boobu man awma njëgu ceeb te quatre cent cinquante tonnes ceeb Cheikh Moustapha génnee na ko hmm. la xam naa ñu ñu loolu tam ñu ngi ko ci santati bu baax a baax a baax moo tax ci 14 février 1931 la gas raay bi egg kon hmm. raay bi ñu ngi ko gas ci at ak ñetti weer ak ñeenti fan yenn murid yi nag daanañ wax ne juróom benn weer ci lañ gas raay bi <laughs> mais mille neuf quatorze no euh, onze novembre mille neuf cent vingt neuf la bala quatorze février mille neuf cent trente et mm-hmm. muy at ak mm-hmm. ñetti weer mm-hmm. ak ñeenti fan neuf cent ci bi la suñ jàmbaar ja euh, Baabul Muridina wàcc waaw Cheikh Cheikh Ibra Fall mi nga wàcc mi ngi génn euh, àdduna ci <laughs> mm, le trois juin 1930. Ah. dégg naa ñëwoon na ci ci ci ci tawat ji sax. Ah, ci ah, kaso raay bi. naan wax nañ ne euh, Sarsaana daanaka ci loolu la ko a affaire bi gën a <laughs> daanelee. mu génn àdduna mais 3 juin 1930 la kon kon euh, gi njëkk a corné Touba. la corné ci gaar 14 koy màggal te bàyyi Saint-Valentin. ah mënees na ko de 14 février la saxaar njëkk a ñëw Touba gën saint valentin ñun ñun raay bi kii raay bi moo ci raay bi baax na date boobu kon dañ ko jàpp <laughs> euh, bu del bu del see déwén xam ne da koy màggal incha allah euh, danañ dem ci sëñ Ahmadul Muxtaar nañ ñaanal bu del see 14 février dañuy éliminer Saint-Valentin indi saxaar gu njëkk. waaw saxaar yàlla 14 mars 1931 14 février. 14 euh, euh, non 14 14 février la raay bi egg. la gas bi egg la gas bi egg. la raay bi pare sëñ Basiru ñëw wax Cheikh Moussa ne ko ndigal li ñu moom. mat na mat na kon alhamdulilah. mais ca 14 mars ba nag. Hmm. ci la saxaar gi daw. un mois après. Hmm. ci la saxaar gi njëkk a ñëw hmm. Touba corne ak. kon kon 14 février gi mooy bis bi ndigal li yeggee. waaw ba suñ Basiru. waaw 11 euh, novembre la tàmbali woon 1929. ba 14 février 1931. la ndigal li yeggee kon lan jàpp dat boobu xam naa kon euh, bala ñuy duggaat ci beneen bunt xam naa mbokk yi ñu ngi ci téléphone bi te bëgg euh, dugg ci waxtaan wi buñ leen yaatalee rek ci 33 02 03 33 976 02 03 seen émission xamle àllarba junne ak aljumo ngeen ci ànd ak Abdourahmane Lo tey nag mbokk yi nu waxtaane jàmbaar ji Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mi nga xam ne mooy xalifa bu njëkk bu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul démb di woon ñetti fan ci baraxlu kon ñu jël mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam wa Mm-hmm. kooku de ñu ngi koy euh, jégalu xam naa dañoo déggantewul mm-hmm. su jaaraatee ci 33 976 02 03 33 976 02 03 salaamaaleykum. allo allo bisimilah. allo waaw ku baax kooku allo. xam mm-hmm. naa sunu téléphone dafa mel ne retour lañ amut ak ñoom xam naa ñoom mm-hmm. bu ñuy dégloo mm-hmm. pour ñu mën a dégloonte ak ñun il ñoom ñu am beneen rajo xam naa kon ku ci yor rajo rek xam naa doo mën a déglu ci téléphone bi ngay wootee waaye bu fekkee am nga rajo koo mën a dégloo am retour wala ku dugg rek nga wax li nga bëgg a wax waaw mu ngoog wala ku dugg rek bisimilah nga wax bu ko defee ñu mën a ànd ak yéen 33 976 02 troit ay jafe-jafe la ci wàllu euh, téléphone bi incha allah ñu ànd ak mbokk bisimilah Mbacke tey jii nag li moom ordonnance moom. mën naa ko fi bokk. Hmm. li fi daam solo lool. alhamdulilah. waaw di di kenn du Moustapha. ah du kenn. lay dakk borom Tuubaa la wax. Cheikh Moustapha du kenn. waaye xam nga ne looloo difficulté yi. gérance hmm. bi. Hmm. loolu ngeen wax ne seen bi lam ko tànnaloon mooy ak ndax. ndax bu rek la jëf. wallaahi day yal nañu ko yàlla fayal. amiin amiin amiin amiin. kay barke borom Tuubaa. amiin amiin Abdourahmane. Mm-hmm. ak monsieur Amar yal na leen sëñ Tuubaa taxaw. amiin amiin waaye kooku bu fi nekkutoon. Mm-hmm. kenn xamul nu muy doon. wallaahi naa bi dëgg la de. ndax. Mm-hmm. dégg naa sama baay mu ne. suñ lu laa wax ci ne sama mag baax. loolu la daan wax da koo yaatal rek. ba ñëpp ku ñëw jëriñ waaye bu ko nekkoon yemale ko képp ci bopp. wallaahi naa ñooñu daal ak ñoo baax. Euh, ma émotion bi ma li ma bëgg wax la si mënu ma xam naa la xam naa la xam naa la xam naa la bu baax xam fi nga féete si am xam fi si am soo féete. <laughs> waaw émotion bi daal boobu. yéeme na sëñ Bass xam nañ bu baax a baax yow moom da ngay yéeme na yéeme na leen yàlla fay yéen ñoo ñu taxawal loolu. taxawul leen saa aar seen mu ngi jëbal sàmm leen sàmm njabootam gi. amiin amiin ba leen joxal. amiin amiin Mbaye amiin Mbaye jërëjëf Cheikh Moustapha Ndiagne Mbaye la kooku moom bu waxee li ci Cheikh Moustapha al Karim du ñu bett wax dëgg yàlla euh, ab daara ko doos la macha allah ñu jël beneen euh, beneen beneen mbokk ci téléphone bi salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk bisimilah. salaamaaleykum. waaw mën nga wax bisimilah bisimilah ñu ngi lay ñu ngi lay dégg. ñu ngi jéglu wax nañ ko sànq su fekkee mbokk mi woote na rek euh, boo amee rajo bu mu dégloo mën na ci déglu wala mu wax rek directement ñu ngi koy dégg. 33 976 02 03 salaamaaleykum. salaamaaleykum waaleykum salaam. waaw na ngeen ñoo ngi sant sëriñ bu baax. bisimilah. Abdourahmane de am nañ euh, jafe-jafe téléphone. <laughs> xam naa ne ñiy wax dañuy dañuy dañuy buñ duggee rek ñoom nañ wax liñ bëgg a wax euh, bu ko defee ñun danañ leen danañ leen danañ leen dégg. ñoom ñoom bu ñuy wax rek nañ wax liñ bëgg wax ñun danañ leen dégg xam naa ne. <laughs> mais bu dul loolu rek euh, duñu duñu déggante ndax ñoom retour lañ dul am loolu mooy li nga xam ne nii moom moo ko moom moo ko moom moo ko waral loolu moom moo moom moo tax itam kon xam naa ñoom bu ñuy woote nañ nañ woote rek wax liñ bëgg a wax incha allah dañ leen teewlu. kon jërëjëf euh, Bachir noonu la xam naa ne ñiy woote rek mën nañoo woote suñu wootee rek wax liñ bëgg a wax ñun danañ leen euh, danañ leen dégg incha allah su ko defee ñu ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy kàddu yeeg ñoom hmm. seen incha allah. 33 976 02 03 33 976 02 03 ñu jël euh, mbokk mi salaamaaleykum allo salaamaaleykum. ñu ngi jéglu kon euh, mbokk yi xam naa danañ ci dikkaat ci kanam tuuti incha allah ndax jafe-jafe téléphone la. Mhm. Abdourahmane waaw kon bas noonu la mais Cheikh Amadou nag nekk koo xam ne itam nag ku ku ku ku am taxawaay la comme ni nga ko waxee euh, bi mu bi mu bi mu bi mu gasee raay bi ba pare saxaar gi ñëw ñu ñu toog ci nag ñu teg ci li ñu tuddee ay ay weer ndax 14 mars 1900. Euh, trente et un la saxaar gi ñëw kon nag ñu nekk ci wàccaayu li nga xam ne nii moom mooy euh, jumaa yi Tuubaa ji ndax yu bëree bëri ci lañ ko ci lañ ci lañ ko amal ci diggante 14 mars 1931 ba le 4 mars 1932 ci li nga xam ne nii moom mooy taxawaay bi nga xam ne nii jëmm jooju nga xam ne moom mooy Cheikh Modou Moustapha Mbacké def na ko mm-hmm. ndax Eh, ci lañ mm, dagg bépp gi nga xam ne moo ne woon ci jumaa ji di ko di ko mm-hmm. di ko gàllankoor mm-hmm. ñu jéem a jël mbokk mi salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum ah ñu ngi jégalu mbokk yi ci téléphone bi 33 976 0203 33 976 0203 téléphone bi moo am ay bang bang tey ji waaye ñu ngi leen ciy jéglu xam naa ñu ngi ci téléphone bi waaye bu ko defee ci jëlaat mel na mbokk ci 33 976 0203 Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim xalifa bu njëkk bu Cheikhul Khadim moom la ñuy waxtaane tey ci émission bi ñu jël euh, mbokk mi ci téléphone bi salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi jéglu mbokk moomu ak seegut وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما تحفة الأواه في تحميس أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 33 976 02 03 mbokk yi ñu ngi leen di jéglu ñu ànd ak mbokk yi ci téléphone bi waxtaane Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ku baax kooku kan la. yal na yàlla doon jàmm. bisimilah. Abdoulaye Samb Kéba. ci Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Samb. alhamdulilah dëgg naa la jaar baax a baax. jërëjëf Samb jërëjëf jërëjëf Samb. di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm. amiin amiin amiin. maa ngi siyaare sama taalibe boobu Abdourahmane Ndiaye. Mm-hmm, sa taalibe la. waaw di ko jaajëfal baax a baax. te mm-hmm. ñaan Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla yëkkal leeram. amiin amiin. waa ñu ci barke barke Cheikh Khadim. amiin. ndax wax dëgg yàlla bu bu échegoon dañ de moom dara ko jàpp. Hmm, dëgg wax dëgg yàlla matal na matal leen hmm. na yoon. waaw ma bàyyi leen nekk li wax dëgg ay jaar jaaram yu bëri yu bëri yoo xam si Amadou Moustapha yi la. Hmm. ndax nee ma bokk naa ci ku mujj yëpp addi aw ku mujj yëpp bokk na nga xam ne nee na ma yóbbu naa ko ñeent fukki nag ak benn hmm. ma ne ko ah, mu ne ma la wax naa ko ñeent fukki dànk ak fukki dànk ak ñett hmm. ma ne ko bàyyi bi dànk mu ne ma fas hmm. mu si ne andi naa ko fas kon nag moom itam yàlla na ko yàlla war na def bu baax ci barke Seexul Xaadim yéen itam yàlla yokk leen wér leen kàttan nag leen amiin amiin amiin ngeen gën a mën a liggéey amiin Xaadim jërëjëf jërëjëf laa si am loolu la jërëjëf si Abdou Lahad jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Samb ndongal Serigne Mbacké Madina ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant 33 976 02 03 33 976 02 03 ñu jël mbokk mi ci téléphone bi salaamaaleykum. Cheikh Mamadou Bachir. Mbacké. maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. ziar si Abdourahmane. ñu ngi di ñaan suñu borom gën yokk xam-xam bi fu ñuy dégg borom xam-xam ñu dégg leen ko raw ci ak suñu Tuuba. amiin amiin amiin. di rafetlu waxtaan bi baax a baax a baax daal. Mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne maanaam man sama gis-gis bu gàtt mooy. Mm-hmm. jamono yi ñuy def raay bi derlee derlee. ñi suñu murus doon berndeel ñi doon liggéey rek. boo ko xoolee day mën a jëm te télé bii ñu doon wax barki démb fii rek. waaw. amuñu kon si amul Moustapha kenn du moom. Mm. te boobu la jamono gënoon na xarit bopp. waaw mm. ah, ak yeneen ak yeneen moo tax daal doy na waar daal jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah wax na lu am solo euh, ci Cheikh Moustapha Al Karim 33 976 02 03 Abdourahmane Lo mm-hmm. foofu la ñuy xaar mbokk yi 33 976 02 03 ko defee ñu ànd ak ñoom ci Cheikh Mouhamadul Moustapha Al ibn xaadimu rasul asalaamaaleykum allo waaw bisimilah ah, eh, ma ne ma hmm. diir bi nga xam ne wuutu hmm. benn jëmmi jamono bu mu nekk ci kawam lal di nelaw nga mat nelaw yi muy yi muy jëmee la ko néew ci tab sàkkat def ko hmm. barke fan la si gënoon a jógee sama borom si amul solo. ci si amul mhm. jàngatal loolu eh, loolu métti na de. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cheikh Moustapha Ndiagne dafa ne mi ngi jooy. Hmm. mais loolu dëgg la. Hmm. ndax Cheikh Moustapha bi mu tëddee. wéradi gi ko gi ko gi ko génne àdduna hmm. mën nañu wax ne sax euh, feebar bi di woon feebar bu tax ñuy wax hmm. ndax hmm, soxna xadijatu mbàkke bintu cheikhul xadim woon na seetsi ko ginnaaw bu mu ko seetsee sax ci jataay boobu sax la génnee àdduna moom soxna xadijatu bintu cheikhul xadim ndax wéré déggum ne woon Cheikh Moussa dafa sojoon moo taxoon mu ñëw doon ko seetsi waaye daanaka daal mën nañu wax ne ci feebaru soj ak yooyu waaye eh, bi mu ko tëddee ba yëfi xaw koo sonal tuuti médecin biñ indi woon mu doon ko seet Hmm. li Moustapha Ndiagne wax rek la ñuy dëggal mooy dafa wax ne mu hmm. Moustapha li ko gën a gën a sonal hmm. ba tax loolu gañe ko ñàkk nelaw nga xam ne tawatul woon waaye ñàkk nelaw moo ko jàpp waaw ñàkk nelaw moo ko jàpp ce que xam nga ne nelaw moo nekk loo xam ne nii bor la boo xam foo jaar fay boo ko fayut da sonal mais nit ki moom bu nelawut fu mu jaar nelaw wala bu nelawut mu feebar ko Mhm. moo tax Cheikh Moustapha bi ñu bi bi bi docteur bi ñëwee bañ wax ko mu wax ne lan la wax ne moo ko dal ñu ne ko ah nee na daal li la gën a sonal daal moom ba gañe la nii mooy ñàkk nelaw mu ne wax na dëgg de moom dina diiru fukki at ak juróom-ñett yi yëgut fu mu nelawee. ana moom ñi nga xam ne dañuy dem laal seen lal léegi. tëdd di xaar di xaar ay nelaw <laughs> yëgut yëgut <laughs> ki nga xam ne ay nelaw eh, nga ma ko naanee du ma nelaw du xam ne <laughs> ay nelaw mosu koo song midi nag ba gañe ko midi jox ataaya mu ne la yow bañ ma nelaw ndax ndax nag bëccëg yi wax nga dëgg dañ <laughs> xoolaat dañ xoolaat yenn yenn mbokk yi. maanaam si amul saa moom <laughs> loolu moom dëgg la wax na dëgg ndax médecin bi ko seet. dañ ah. ko waxee dana hmm. ko ñàkk nelaw moo ko sonal. Hmm. loolu bokk na ci daal. Eh, salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yow ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi delloo ziar bu baax. ñu ngi rafetlu émission bu baax. jërëjëf jërëjëf. li ngeen wax am na solo lool lool sax lool. alhamdulilah. si Mouhamadou Moustapha day. Hmm. lépp looy te wax rek. la ngeen bàyyi moo ëpp. dëgg la. sëñ Tuubaa la kenn xamul ku mu doon. dëgg kenn du moom. ndax ku xam sëñ Modou Moustapha. Hmm. jamono yi nga xamante bi sëñ sëñ bi jógee. Hmm. jamono joojo rek nga xamante ne boobu tubaab bi ñoo fi nekk. Hmm. ak fi ñu àggoon ak sëñ bi. loolu rek képp ku mënoon a loolu. ku dul sëñ Tuubaa amul. dëgg la sëñ Modou nga xamante ni. boobu sëñ bi àggal na ko fi mu war a àgg mhm. ba comme ni ngeen ko waxee waxoon nañ ñu ko bis sàngam weer sàngam bis sàngam mhm. fu mu la fekkati na xam ne amatoo kilifa ci kaw suuf keroog ba muy wàññeeku ci tukkam boobu mhm. wax nañ ne mag mi mu woo loolu la ko wax mu ne ko nag man li ma ci gën a jaaxal mooy sëñ baa ngi njaareem te man maa ngi fii nee woon na ma bis sàngam boo ci àggatee doo am kilifa ci kaw suuf te lu ma jaaxal sëñ baa ngi jaaree maa ngi fii man loolu ma dem jaaxle mm-hmm. looloo waraloon ma wàññeekuwaat ci tukkeem booba mm-hmm. nga xool booba mm-hmm. tubaab bi nekk fi sëñ bi ni ko woon bu ma fi jógee ngeen ni ma tuubaa taxat demul lépp lu ngeen tàmbalee naa ko àggale nga xam ne sëñ tubaab bi nga xam ne jël ko moom mu def seen yu ñëw ak ñi àndal ñëw mm-hmm. moom mu def fa responsabilité boobu ak jamono jooju ngeen di xool mm-hmm. jamono yi léegi ji rek laa nga xam ni mm-hmm. ñun ñëpp ku fi sa waajur jóge woon ak fu mu àgg ak yow am na nu muy demee boo sàggantul boo amul ndimbal dëgg man nga ab sant rawat nag jamono ji nga xamante ni sëñ tubaab nag jaxasoo woon nag tubaab bi nga xamante tubaab bi ci boppam biñ ne ko sëñ bi dafa làq moom gëma ko ñoom moom gëmuñu woon sëñ bi jóge na fi moom gëmuñu ko woon ndax commandant bi nga xamante ni wax nañ ni moom lañ wax moom la sëñ Modou Moustapha yónni ko waxee bi moom dafa jàppoon ni loolu waru man nekk nga xamante ni dafa mujjee woote France waxal ko seen kilifa dafa nekk léegi beneen bi li ma ci gën a li ma ci gën a intéressé gën maa cee ñor dëgg ñun taalibe yëpp di ñi nga xamante ni yaakaaroon ko du sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa jàngaloon nañu lépp luñ bëgg ci àdduna fi ñu war a mën a jaar bu am dañu mhm. soxlaal kenn dara ndax loolu moo waral liggéey sëñ Maodo Moustapha li mu liggéey lépp diir bi mu fiy nekk mu liggéey ko ak raay bii nga xamante ni liggéey na ko indi ko Touba ak jumaa ji sëñ Bàmba ji nga xam ne taxawal na ko mhm. lépp lan moo ko waral du dara bu état boo xam ne dem na ci mhm. lépp nag dara waralu ko lu dul sëñ Touba li ma gën a métti nag mooy ñi nga xam dañ leen di tudd di tudd Serigne Touba ñuy làqatu ci nit àdduna yii bokk na ci li nga xamante ni moo ma gën a métti ci sama àdduna bokk na ci ndax ma li ma gën mooy lépp lu ñu am Serigne Touba ñu ko war a jox lépp lu ñu ñàkk Serigne Touba ñu ko war a xañ ndax wax nañu fi ñu war a jaar ba lu ñu war a am ñu am mm-hmm. kon nag lépp loo xamante ni liggéey nañ ko fi buñ toppee ci li nga xamante moom la ñu suñ Tuubaa digal hmm. lépp lu ñu bëgg dañ ko am ko am àllaaxira jërëjëf jërëjëf macha allah euh, message bu am solo la lancé te lépp ñu roote ko rek ci ki nga xam ne moo di Cheikh Moussa Barkam li mu waxoon li mu waxoon ne am na ci yu mu def yoo xam ne buñ ci jëlee benn rek hmm. te suivre ko ci jamono jii nii mën nañ cee defar lu baree baree ba xam naa dañuy jël mbokk mi te téye euh, bu ko defee ndax waxtu waa ngi dem li ci des bariwul salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam bisimilah ku baax. Ah, waaw loolu li nga wax léegi sax xam naa aw ma retour. waaw waaw bisimilah. waaye ñoo ngi sant bu baax suñu gërëm. Hmm. di wax Moustapha Seck Baye Fall Salif yenn kër yi Fall. Hmm. waxtaan wi neex na tegu na ci yoon jaar na ci dëgg. Hmm. Ah, li suñ wax léegi loolu mooy dëgg. li nga xam ni li nga Cheikh Ahmadou Bassir moo ci nga xam ne ca la loolu téye yu hmm. ñu Moustapha Maguette Bass ñu gën a kuñ daan wax baay baayu mbay dani hmm. ku ma sàkkal moroom ji magay baraan yee ak jaaj hmm. daa wax naa Cheikh si am di la mustagaat nga dem daa wax am di Moustapha Maguette Bass ak am di Moustapha nga ba doy ba mu mooy raay moo dul taxaw àlli sa moo ko wax noonu la demee moo fay kilométrage yi ci nombre boo wax ñit ki dërëmi ngurlu ñit ñit si ñi dërëmi ngurlu par six kilomètre moo fay itam suñu feeya moo fay itam personnel bi. Mhm. ndax junni nit ak juróomi téeméer ñoo def raay bi. te tubaab bi dañoo di amee sol ndax du ma tey bi da ko teg sama loxo ma fay ko. Mhm. du ma la bàyyee ñoom ñun ñu naa def leen ko àddee. Mhm. Cheikh Cheikh Modou Tafa alayhi salaatu wasalaam nangu waaye nag murid seen bopp seen volonté benn solde képp benn jullit képp la Cheikh Modou Tafa génne. maanaam ci soldu ouvrier yi biiru defum raay bi maanaam su fekkente ni Cheikh mu wax waxtu jot na hmm. Cheikh Modou Moustapha jël solde bi jox tubaab bi hmm. tubaab bi woo manœuvre yi bindal hmm. leen ko kenn ku ci nekk bala mu am vingt quatre heures fa solde dañ ko dañ ko yëkkatiwaat na mu tegaat ko ci waxu Cheikh Modou Cheikh Modou Moustapha ne dajalawaat ko tool na mu tolaan ñu teg leen ko voyer ne Cheikh Modou Moustapha présenté waat ko joxaat ko ñooñu wala ci murid noonu la

tubaarkal ay waxtaanam neex lool nag ay mm-hmm. waxtaanam neex lool eh, li mu wax ni lu am solo la eh, ci Cheikh Moustapha Al Karim mm-hmm. xam naa dañ lay joxaat antenne bi di jéglu mbokk itam ci téléphone bi ndax suñu heure bi moom mi ngi dem ñetti minutes moo ci des te li ma la ko waxoon ci njëlbeen gi rek si mun saa ñu koo jeexal ci ay waxtu wala ci ay minutes naan dañ ko ko koy sàkkal ngir waxtaanee am na yu bari yoo xam ne defaat na ko ci ay jamonoom eh, soog a làqu soog a làqu ndax ñu ñu ne waxaane rek mbirum autorisation beeg wàllu defar jumaa jeeg li waral raay beeg mais jëmmi fondement jumaa ji àggagunu ci ak euh, nam ko taxawalee wax nga léegi nii plan jumaa ji fan bi waroon nañ nekk fi ñu ko indeeg xelam mu rafet moom ca def ak xeet yooyu xam nga dafa am sew yu bari yoo xam ne Cheikh Moussa Karim mm-hmm. loo wax ci ab liggéeyam mm-hmm. da koy lijjanti ba ba tubaarkàlla macha allah ci ni ñu ko waxee ci dal gi ak yeew gi ndax bu kenn werante aussi ak baatinam mm-hmm. baatin moom da cay feesoon dell waaye dégg naa monsieur jëfandikoo lu toll ne tar fatal ay ni mm-hmm. lépp lu mu réalisé nit ñi ko yéem expérience la ko li euh, euh, la ko lijjantee mm-hmm. moo tax dégg am xel mu rafet moo tax dégg naa sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad mas na wax mm-hmm. euh, sëñ Tundoo di xaw ma ak kan ci doomu si Ahmadu Sawaay woo leen ba ñëw mu ne leen ba li may def méttiwu leen ñu ne ko déedéet Mbàkke ndax yaa fi suñu waajur yaa fi déedéet yaa fi waaw suñu waajur yaa fi Sëriñ Tuuba mu ne leen lu leen ci neex ak lu leen ci mett daal na leen leer na ci seen baay ba dong laa ko jële <laughs> ndax moo ma tàggat kon lépp lu may doxee rek bu leen mm. neexee bu leen méttee daal mm. ci Cheikh Moudou Sow laa ko doon ne moo tax boo boo boo boo xamul Cheikh Moudou Sow dëgg dëgg rek mm. xamal Sëñ Abdou Lahad ñoo bokk même comportement ñoo mm-hmm. bokk même même ñu doon doxale Mm-hmm. waaw nga xam ne ne yëfi tegu ci aw yoon rek. tegu ci yoon. Mm-hmm. Euh, sa euh, maam ju baax ji Cheikh Bayti Ndongo Dior. Mm-hmm. bi fi Cheikhul Khadim bàyyi ko dafa ñëw ba Cheikh Moustapha Karim bi muy yeeslu ne ko xam xamoon nañ sa wayjur wa xamoon fa mu nekkoon fa mu tegoon tànk buñ la séenee nga teg fa sa tànk ñu ànd ak yow. buñ la séenee nga jaar feneen nag ñu wàcc la fa jaar ci sunu yoon wa ñu nekkoon naka jekk. dafa nanga woon fi ndool ci gàttal rek mooy Cheikh Moustapha pour ñu ñëw ci bref. tënk comme ko waxee gis nga Mbàkke Bawol gii rek. bi lu ko lu ko jotee leen Mbàkke Bawol Mhm. ndigalu Cheikh Amadou Moustapha organisation bu am solo defoon nga xam ne nga xam ne bi raay bi eggee rek Cheikh Amadou dafa faboon alt yi mooy liñ tudde woon ay arrêt mhm. rek lañ doon wax mooy arrêt bi mhm. moom lañ tënk naan alt ay gaar ak na yoo xam ne sax duy la maanaam kon saxaar am na am na am na fu mu war a taxaw fu dul ay gaar waaw am na am na luñ tudde woon lu toll ne nga xam ne man naa fexe ba bu fa ñëwee taxaw fa nit wàcc fa nit yéegee fa te du nekk gaar moo taxoon gaar bu ndaw ab ab arrêt la amoon alt la amoon nga di woon gaar mais Touba moom benn gaar la muy gaar bu mag. Hmm, hmm, mais hmm. amoon na jàlluwaay boo xam ne nag mën na faa dem taxaw fa ñu wàcc fa marchandise wala dara mu dellu siwaat ci gaar bu mag. mais ci gaar bu mag bi la ñuy daggee. ticket yi ak yooyu comme comme comme comme na orel yi def mën naa yebe garage Dakar mais mën naa dem ba ba daaru xafoor nit kii mu taxaw fa yabaywaat fa ay nit jàll mm-hmm. ak yooyu daal mën na nekk mm-hmm. mais du du du du gaar mm-hmm. amoon doon gaar mais amoon ñu tudd ay ay ay arrêt daal ay arrêt moom la ma ngi doon wax alt rek ko ci baatu alt dëgg la nga xam ne nii comme gaar bu Mbàkke bi gis nga ku mel ne papa yi Ibba Gueye maam ku mel waaw ku mel ne euh, sëñ. sëñ Modou Lo Dagana sëñ Mouhamadou Lo Dagana. Mm-hmm. ku mel ne sëñ Ibra Joor sëñ Ibra Joor Amar. Mm-hmm. ak keneen de sonn na keneen muy ñeent. Mm-hmm. ñooñu Cheikh Moussa da leen a waxoon na dem leen Mbàkke Bawal ngeen dëkk fa. daal di ñëw fii nattal leen leen. lim yéen li ma leen di sas mooy. papa yi bëggee mu ne ko. yow na fexe ba ci wàllu côté administration bi fi waaye di lijjanti na la ko wax nga dox ko. Hmm. ñoom sëñ Ibra Joor ak euh, ku mel ne sëñ Mat Loo Dagana mu ne leen yéen gan ñi nga xam ne dañuy ñëw ndax léeg-léeg nit wàcc ci gaar bi guddi mënut a dem këram hmm. mais yéen na ngeen fexe ba boolub añ bu reer ak néeg boo xam ne gan dana fi am na fi nekk hmm. nit ki bu ñëwee jaaxle ngeen dalal ko nga xam ne ñooñu bokk na ci tey li leen indi Mbàkke Mbacke Mbacke Cheikh Moustapha mu leen fi indi. waaw kenn ku nekk mu am rôle bu la jox. waaw boobu la jox Cheikh Dagana lépp lu waay laaj ci sëriñ bi. Euh, na la ko laaj na la ko laaj. Cheikh Rodior lépp lu waay laaj ci li ci charia. na la ko laaj na la ko laaj na la ko laaj. waaw wax nga dëgg itam kër ga mbooloo daaw. war nga la waaw loolu moo nekkoon mooy nekk fi ndax léeg saxaar gi ñëw fi guddi Hmm. léeg-léeg nit jógee ci dëkkub àll di xaar saxaar gi fajar hmm. pour mu man fee dugg dem léegi bu ñëwee bu ñëwee foofu moo xam kër suñu Mouhamadou Lo Dagana moo xam kër suñu Ibra Joor moo xam kër Papa bëgg Gueye googu moo xam geneen kër waa ñu man faa nekk bu ñu fa nekkee nag man faa jàppee fanaan fa mel na ma nga seen kër hmm. bu saxaar gi ñëwee ñu dugg dem bu ñëwee bëccëg di man see wàcc xam ne aña nga fa ak luñ guddee guddee reer dana fa nekk am na ponk bu am solo bu ñu war a wax bu ñu waroon a wax te xëy na wax muy wàllu diisoo gi ndax li nga wax ne ko euh, bokk ma si jublu bu ma jógee tee njaareem bala may jàll Touba ma jaar fi wala ñu diisoo ci ay mbir bu ma jógee Touba bala may jàll njaareem ma jaar fi ñu diisoo ci ay mbir baatu diisoo googu dafa am solo ci jamono Cheikh Moustapha Karim boole boole ko mag ñi daanaka mu xool ci ni ma ko xaw ma pànk laa ko man xaw ma mais mu xool mag ñi nga xam ne am nañ am nañ am nañ dignité. xam nga nag ci attention nag léegi la léegi la léegi la yoon wi gën a kii mais toll temps yoo xam ne nii bi fi ñoom Cheikh Manou di nekk yoon wi amoon na mag ñoo xam ne dignité yi ñu amoon ak koo man di doon soo jàddee ñu teg la ci ñu tegaat la ci ci ci ci raay bi Cheikh Manou Sow itam mag ñooñu daf leen a jëloon defoon leen. Mm, ci ci boppam sëfal leen nga xam ne ñooñ ñi mooy conseil moo tax soo Moussa daana wax ne moom bu juumee na nit ñi xam ne mbooloo moo juum mais du menn moom moom moo moom moo moom moom moom moom moo juum mais mais mais leneen li am solo tool àllarba rek fi mu toll nii vraiment tool àllarba rek njëriñam ci yoonu kenn mënu koo xam te création Cheikh Modou Moustapha la waaw tool àllarba rek njëriñam kenn mënu koo xam ndax création maanaam Cheikh Modou Moustapha la dafa am ku ku kuy woote wala. waaw daa mel ne <laughs> daa am lu mu bëgg a daan waat. waaw bisimilah. <laughs> ci loolu ngay wax. <laughs> docteur bi la mu waxoon noonu. Mhm. Euh, li docteur bi waxoon. Mhm. daf ne appareil bii nit nit nelaw yi moo moo fay. Mhm. xam nga doomu aadama am na appareil buy nit ay nelaw. pour xëy ko ci lu mel noonu. moo fay loolu laa lay dëggal ci li nga wax ci. ci docteur boobu noonu. appareil moo fay. dana yaraw mi. am na appareil buy nelaw. waaw maanaam am na am na ci loo xam ne moo yore nelaw yi. maanaam tey comme ni ñu waxee tey la. boo ne cër boo xam ne moo yore waaw boîte bi loolu la daal maanaam moo ah. yàqu ci Cheikh Moussa waaw comme loolu. batin bi wax. Mm-hmm. Euh, samay nopp suñu soxnañu tàmbal bi bi ñuy bi ñuy gën mm-hmm. wax Cheikh Moussa ne ko soxnañu mu sama bàyyi nee na mu wax ma ne ma damay wut ak butéel indil ma. Hmm. mu def ci ñaan newén. Hmm. dem leen bu ngeen demee ngeen jox mu mu mu naan mu na ci naan te diw ci te ngeen seeti xam kat yi. Hmm. mag ñi dem bay tolloo ko sëñ Fall. jëm si mbal. di wax ci seen biir di wax naan daal tey bu doon sëñ Tuubaa nga xam ne maanaam moom bu bu defee ñaan bu la ko joxee boo saxee bu seen bala ngaa yàgg rek daal di mucc. <laughs> moom ci boppam. Mm-hmm. mu laaj ñu ne ko dem nañ mu ne sama baay la leen dab. Mm-hmm. bu ñu dikkee. Mm-hmm. mu ne leen. man demee na ci naan diwu ji da ngeen seeti xamkat yi ndax kooku ngeen may bëgg a tëkkaleel te lu nit te man mënu mu soit nit ñi ay laa. Eh, foofu eh, loolu lu baatin sëñ bi. Eh, ok ok loolu koy baatin sëñ bi. ko waxee foofee. ah sëñ bi kenn du ko ah kenn du Cheikh Moustapha. jërëjëf jërëjëf Cheikh Moustapha ah Abdou ah, Abdourahmane mm-hmm. ah man mm-hmm. nekk lu am solo euh, damaa yaakaar ne tey si Moustapha Ndiagne dafa xaw a daanoo. dafa daanoo mm-hmm. doon na jooy sax. ci ba muy coupé ci yoonam bu njëkk bi. mais xoolal toolu ba rek. toolu àllarba rek création boobu noonu rek dafa yéeme. nga xam ne maanaam Cheikh Moustapha amoon na ci expérience di wax mag ngi ne. munu leen nit ku ne mënut a jël responsabilité bayal Serigne tubaa ab tool. Mhm. waaye fexe leen ba bokk ab tool boo xam ne ni àllarba bu jot ngeen ba seen yitte dem bayal ko Serigne Touba. Mhm. tool àllarba yi rek li mu doon jur ci xaalis kenn xamut kenn xamut nu tool ba pare dina am rendement ci yoon wi. waaw ba pare aussi murit bi. même bu nekkee ci yitte boppam dana liggéey Serigne bi. waaw ñaari rendement lay am. Mhm. yoon wi dana ci am financement mais murit yi danañ ci xamante. te moom dana liggéeyal Serigne Touba. ci liggéeyal Serigne bi sax nga xam ne léegi li xew muy damay liggéey ba. wala ko xame bi sax day am. Mm. ndax xame bi dëkk bépp dañuy xamee ne ñoom chaque àllarba rek Serigne Touba woon na leen fenn ñu daje. war nañoo daje fee. ci la ci la Serigne Cheikh Mbacke ñëwee moom ci ay jamonoom indi daayira. Mm, mm, ajjuma ju ne wala benn bis bu ne ci semaine bi. ñu war a daje nga xam ne nga xam ne nga xam ne loolu lu kii la. nga xam ne Cheikh Moussa itam ci ci ci ci ci niñ ko waxee ci stra ci stratégie mooy sanc loo mag ñi ay dëkk bari na ci dëkk yoo xam ne yoonu murit ci mille neuf cent vingt huit mille neuf cent vingt huit vingt neuf lañ leen sanc hmm. ndax yooyu di li mu ci jublu woon mooy dëkk bi mais imaginer fi mu dool xool ci ndigali Cheikh xool fi mu dool ci ci expérience Cheikh nu Safa maanaam tey nañ na nañ nañ delloowaat dëkk yi yoonu murit sanc dëkk yi dëkk yi sañc hmm. ci turu yoonu murit hmm. dëkk yooyu yëpp bu ñu leen annulé woon mais senegal li fiy des ci village du bari. Hmm, région boo dem rek gars yi ña nga fa. gor nañ fa gor nañ fa suuf. ña nga fay liggéey hmm. bi bari na mais bu njëkk rek. bi fi see mun soit di bàyyeekoo rek. Hmm. senegal laa la wax de. dëkk bu ne. maanaam tey buñ buñ buñ dëkk yi yoonu murit sanc ñu annulé ko rek. tey senegal dëkk yi dana dana wàññeeku ay junniy junniy junniy village. waaw nga xam ne. loolu loolu itam nekk lu lu gën a kii xool Cheikh Moustapha bi muy titre foncier Touba 1928. Hmm. mais ñun ñoo xam njëriñ li ñun ñi nekk 2019 fi mu toll nii. Hmm, hmm, nga ne tereb suñu abdoulaye bi li ko gën a yombal titre foncier bee tax. foofa seenu dëkk la. waaw. tereb suñu abdoulaye bi titre foncier bi see Cheikh Moustapha def moo gën a yombal tere bi. am na ñeneen ñu ko bëgg a tere seenu dëkk mais mënuñu ko. fi na col mii ni col mu gàtt ak yi yëpp am na ñu ko bëgg a tere ci seen dëkk mais mënuñu ko ndax ndax ndax li leen të mooy titre foncier bi lay mhm. gi wax dëgg yàlla yëf yi yegg si fi ah, mais titre foncier bi moo leen ko xañ jéem nañ ba sonn waaye ñàkk am titre foncier mhm. bu fekkoon ne am na titre foncier loo fi bëgg moo fi am loo fi bëggul lu fi am mais fi mu nag loo fi bëgg da ngay neexal état ndax titre mhm. foncier bi état ko yor ak lu mën di xew ak ku mën di doon bu dikkee danaan sëriñ bi su ma ci amee ndigal ah. dégg naa ba tey président bu ñëw toog ah. ne ko bëgg na maa def lii Touba ah. ak lii ak lii waaye ah. sëñ moo tax loo moo moo tax loo gis muy ñëw Touba dañ naan spécial brigade gendarmerie spécial spécial hmm. police spécial hmm. eaux et forêt spécial parce que ville spéciale waaw ndax ville spéciale ci biir Sénégal ville spéciale boobu nag nañ ko sant Cheikh Moustapha Karim Cheikh Moustapha moo ko waral ndax moo ko titre foncier hmm. muy deux kilomètres moo tax fi mu toll nii bi bi bi nguur gi ñëwee ci mille neuf cent Hmm. bëgg def Touba administration bëgg def Touba ab ab arrondissement. Hmm. mais dafa dem daaru dafa dem ndaam daaru xalimul xabir. Hmm. sëñ Touba ko sanc mais am titre foncier. fa la yëfee nekk arrondissement ba. Touba moom ak boppam la dañ ko bàyyi noonu. waaw dañ ko bàyyi ak borom. moo tax mag ñi doon wax ne li li li li wër Touba muy deux kilomètres cinq cent yi nga xam ne moom la Cheikh Modou Moustapha aar muy cinq kilomètres yi. moo tax sëñ Saliou ci mujjëm sax eggoon na ci di wax ne. Hmm. sëñ Saliou déclaration boobu dañ ko dañ cee bàyyiwul xel mais ci biir déclaration egg na di wax ne képp ku jaay sa kër goo xam ne mi ngi ci biir corniche bi nga hmm. jaay ko jënd kër goo xam ne mi ngi ci bitti corniche sa këru Touba jaay nga euh, te loolu dëgg la diir xorom bi nag day mel ne ñu bari seetluwuñ ko waaw hmm. maanaam képp koo xam ne nii sa kër maanaam tëli bi tëli bi cercle Touba yaa ngi ci biir nga jaay ko dem jënd kër goo xam ne génn na cercle bi yow jaay nga sa këru Mm. foofaay Touba ah, foofaay Touba mooy mooy mooy cercle boobu bu njëkk ba waaw mm-hmm. maanaam mooy natt bu njëkk ba waaw mm. léegi nag Touba amatul woon titre foncier ba ni Ablaye Wade toogee président de la République ci la dolliwaatee titre foncier bi mm-hmm. waaye lële nag mënut a yem ak lii ba tey mm-hmm. waaye comme lépp itam ci kaaraange gi la nekk muy titre foncier moo tax doom yi suñ Touba doon wax ne ñoom lu man di xew warma bi nga xam ne nii daal mooy warma fiamunu sawaa bi moom nañ ko fi ba moo tax sëñ Saliou eggoon na ci di wax ne banque yi nañ génn luy cercle bi salon yi nañ génn luy cercle bi mm-hmm. mais loo ko gis banque yi doon dëgëranteeg sëñ Saliou bopp ba tey avancement daanaka tëddale client mënuñu ko am fu ne la ñuy dugg ci marché yi di wuti client dara mais mm-hmm. mënuñu ko am ndax mm-hmm. cercle boobu dañ koo aar ba pare effectivement waaw mu nekk lu am solo euh, ci Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim yaakaar naa Abdourahmane xam naa rek euh, fi mu ne moom maa ngi ñëpp ci yem bëgguñu waxtaan wi jeex <laughs> ndax mu Moussa Karim moom. mais mm, mm. mu mu tàmbali jumaa ji ci bref ci 4 mars 1932 liggéey ko. Mm. ñu teg ci nuñ koy waxee 4 mars 32 33 34 35 36 37 38 39. guerre bi tàmbali ci mois de septembre septembre 39 ci la guerre bi tàmbali. deuxième guerre mondiale 39 45. mais Cheikh Moussa góorgóorlu na ci biir guerre mondiale bi ndax 39. septembre 39 la tàmbali mais Cheikh Moustapha dem na ba la 9 juin 1940. Hmm. ñu continué di liggéey. jumaa jumaa ji mais 9 juin 1940 nag la guerre bi toll ci digg ndëndi ndax boo fekk na daanaka mu am presque at. Hmm. ndax li ko manqué at bëreetut. Hmm. crise am jafe-jafe yëpp am même xaalis amutut. jumaa ji mënutut a continuer Cheikh Moustapha arrêté ko. moo tax sëñ Fallou mi ngi tàmbaliwaat jumaa ji ci le 16 mai 1948. 48 moo tax moo tax moo tax bi see moo tax ger bi 45 la jeex ñu changé xaalis bi ci année cinq bi ndax Cheikh soit Sow 14 juillet cinq la fi bàyyi ko. Hmm. suma ma juumul octobre wala novembre 45 bi kon deux mois après ger bi jeex guerre bi ci 45 avant Cheikh Modou soit di nelaw. wàññeeku na ba jeex léegi nit ñi tàmbalee ki yooyu ñu tàmbalee dugg ci négociation bi kon nit biñ ci tegee Cheikh Modou génn àdduna ci même année boobu ñu teg ci deux mois ñu doog am négocier changer xaalis bi indi fi franc CFA tubaab bi fopp réew yi nga xam ne ñoom leen yilifoon muy mm, AOF boobu muy ay Burkina Faso Mali Mauritanie eh, Guinée eh, Côte d'Ivoire mm, Bénin Sénégal ak yooyu ñu indi fi franc mm-hmm. CFA franc franc bi FF bi FF muy franc franc français français franc mm-hmm. waaw ok mu ngoog jërëjëf Abdourahmane xam naa ma bàyyi la nga yëkkati kàddu yu mujj ñu tëj nag jotaay ba ëllëg incha allah sant ñëpp gërëm leen sant la xam naa ne euh, gars yu bari nee nañ émission yu mel nii ci laa gën a mën a euh, anu nga waxati <laughs> barkalla <laughs> ci a a euh, ngéwalee daal waaye <laughs> ñu xam ne maa ngi ciy jégalu xam nga gars yi nag léeg-léeg ñoom dañ may jatt ko benn ne sëñ Basirou ak ñooñu ak rajo bi gars yi neeñ moom il faut que ñuy def plateau yu mel nii léeg-léeg ñuy def plateau yu mel nii moo tax léeg-léeg ñu sonal ma lool moo tax tey nag ñu ngi ciy jégaluwaat bu baax a baax mm. bëggoon nañoo gën a yaatal waaye gàtt Bachir mm-hmm. yow itam maa ngi lay sant bu baax a baax ndax mm-hmm. dana tax ah, yu bëree bëri yoo xam ne mënuñu koo wax ci émission bi mm-hmm. te bu ñu toogee mu am laaj ak tontu dañ ci gën a a wax yi nga xam ne moom moo ci suñu xalaat ñi ngi sant ñëpp di jéggulu nag ñi nga xam ne wax di yàlla depuis vingt deux heures ba tey eh, yàq nañ seen i nelaw ñoom itam ñu nekk am ñi nga xam ne bëggoon nañoo woote te mënuñoo woote ñoom ñëpp ñu leen di jéggulu di jéggulu bu baax Ousmane Morone mi nga xam ne mi ngi moom tamit foofu ci euh, Touba euh, Touba mosquée moom ñu ngi koy sant baax te di ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf Abdourahmane Lo jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di delluwaat di ñaanal xalifa général kullu murid Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi lool ta ànd ak wér delluwaat di ñaanal Serigne Ahmadoul Mokhtar Mbacké euh, mi toog jotaayu Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim moom it tamat ko sëkk mu yàgg fi lool ànd ak ba lépp du yéene rek liggéeyal seen uh, wayjur wa seen maam ya ñu yeggale ko am ci ndam ñu ànd ko ak murit yépp kooku mooy Cheikh Moustapha al Karim bu njëkk bu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul li ñu waroon a wax ci moom lépp mënuñu ko wax ci euh, yenn minutes yi mbaa ci yenn waxtu yi ndax kooku lépp day moom muy Cheikh Moustapha al Karim bu ñuy wax ci moom sax daanaka euh, du nu am tuuti maîtrise du nu am euh, li nga xam ne moom mooy contrôle ndax sori gu ñu sori ci moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké yàlla nañu ko suñu borom fayal te liggéey bi mu liggéeyal way juróomu sell wa doon liggéey boo xam ne liggéey bu àddina bépp di jëriñoo lay doon ndax kenn ku nekk mën nga jàng ci moom ci rafet njaboot ya lenn loo xam ne rek mën nga koo téye téyel sa bopp teg ko ci sa kanam mu doon sa nit koo xam ne ci ngay niitu xam fi ngay teg sa tànk adduna mu doon nag njëriñul tey ak ëllëg jaaraama am di jaaraama Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim mbokk yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah